mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw bu ñu sante yàlla sunu boroom tabaraka wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant ak ak tàgg bu baax Mawlana Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala an ñaan sunu boroom mu taas ñu ci barkeem bi barakati yonente bi sallallahu alayhi wa ñi ngi nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ndokkeel di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan ak wér di nuyu jullit yépp ak fu ñu mën a nekk gannaaw loolu mbokk yi ñëwaat nañ ci jataay yi nga xam ne daaira Muxaddamatul Xidma da leen koy defal ci weeru koor tey jii di fukkeelu fan ak ñaar ci weer wi kon ñi ngi ci fukki fan yi nga xam ne moo nekk ci digg bi di fukki fan yi yërmande di ñaan suñu borom mu yërëm ñu jéggal ñu suñuy bakkaar barakati xadim rasul euh, ñi ngi nuyu bokk yi fi teew yépp di nuyu bokk yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ñuy topp ci MKTV wala As-Samadiyya TV Timis Lamp Fall télévision ak rajo yi nga xam ne ñooy jokkoo ak ñoom ak site internet yi nga xam ne dañuy jokkoo ak euh, site internet bii tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu rajo yi ak télévision yëpp rek di leen indil tomb boo xam ne ni ñu leen ko waxe woon démb euh, dañuy jàngat xasida xasida gu am solo goo xam ne bokk na ci xasida yi nga xam ne am na solo lool te am histoire ci yoon wi te am barke te bari njariñ waaye xasida gi nag dafa làmboo timit ak dëkk bii di Touba muy Matlabul Fawzayni xam ngeen ne sëriñ bi bi mu sancee dëkk bi la taalif xasida googu di xasida ak Matlabul Fawzayni ngir lépp loo xam ne bëgg na dëkk bi mel ko mu ñaan boroomam mu melal ko noonu lu mu ci soxla tamit ci wàllu kaaraange lépp mu ñaan ko ci waaye soxla yi nga xam ne am na ko ci bëgg ku fi dëkk mel noonu it lépp mu mu daxañ ko ci biir xasida googu kon dafay mel ne suñuy waxtaanee xasida gi ñi ngi waxtaane Tuubaa ñu ngi waxtaane it ku dëkk Tuubaa nu mu war a mel waaye nan nga ko war a warmaale kan moo war a def waxtaan wi am na solo ndax mbir mu nekk it jox ko ko ko xam te man ko def ci am solo muy sëriñ Mamor Mbakke moom sëriñ am di Gaawaan moom si Seex Astawaalo moom Mamor Jaara kon jàpp naa ne suñ ko tuddee askanam danañ xam ne eh, fii la bokk te war naa waxtaane tomb waaye tamit di sëpp sëriñ bu soobee tamit ci ci wet waaye loolu rek du doy du doy ci ñun ñuy tànn kuy di war a def waxtaan fii duñ ko tànnee ci loo ci wet googu rek waaye dañ koy tànn ci koo xam ne góor góorgóorlu na ci am njàng ba xam ca lam ca war a xam waaye doon gëstukat doon bindkat tamit doon koo xam ne ku gëstu la ci yoon wi gëstu ci njàngaleem sëriñ bi lool kon am nañ yaakaar bu baax a baax a baax ci ni mu ko daa defee ci at yi weesu yépp ci ne incha allah yal na ko yàlla defal tawféex ak taysiir ba mu jooxe ko nu raw ni mu ko daa joxe kon sëriñ Mamoor Mbàkke am di moom moo war a def waxtaan wi waruñu koo tënkal nag ci ñetti tomb bi ci njëkk danañu waxtaanal ci tuubaa ci boppam maanaam jëmmi dëkk bi ci boppam fi ko sëriñ bi tegoon ak dëkk bi nit ñi war nañoo xam dëgg dëgg dëkk bi rawatina ñu fi dëkk su noppee nag dana ñu gaaral xasida gi nga xam ne mooy xasida ak Matlabul Fawzayni danañu ko gaaral waaye su noppee nag dana waxtaan tamit ci tomb mujj bi muy ñi nga xam ne ñooy waa Touba ñun ñu dëkkee Touba nan la ñu war a mel ak yan comportement la ñu war a am waaye loolu lépp tamit nag dafa fekk na mi ngi koy tibbe ci biir xasida gii di Matlabul Fawzayni kon jàpp naa ne ñetti tomb yooyu la ñu war a waxtaanal kon dañuy njëkkante ak waxtu yi jox ko ndax waxtaan wi ñuy xaar ci moom am na solo su ko defee mu tubb ci waxtaan yi sëñ Mamoor bismillah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 muy weeru koor ci barab bu màgg bi ñu nekk muy néegu suñu borom subhaanahu wa waaye di jumaay Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu nuyoo boobu ak siyaare bi nag ñu koy tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal lool mu yàgg fi te ànd ak wér ba mboolem naal yi mu am ngir liggéeyal ko sëriñ bi mu def ci lu kawe njortam di siyaare bu baax waa daairatu muxaddamatul xidma ki nga xam ne ñoo ñoom la sëriñ bi féetale fii ñuy taxawu barab bi te di ci def seen kem kàttan ci njiitul suñu sëriñ suñu nijaay di sëriñ Afia ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñoom la ko àndal di sant bu baax sëriñ Abdou Lahad ci ni mu tàmbulee waxtaan wi bari na ci yoo xam ne waroon naa ko wax jàpp naa ne sax euh, ni mu ko ubbee rek dinaa mën a doy loolu euh, ngir njëkkante ak waxtu wi di waxit ne tomb bi tomb bu am solo la ñoo ngi sant bu baax daayira bi ci bii ak yi ko jiitoog yi ciy topp yépp rek ngir jamono ju ne tomb yi ñu tànn ñi ngi koy xool mu doon yooyu war naa mën a jural njaboot gi njariñ bu baax a baax mag ñi man cee fàttalikoo ndaw ñi man cee man cee jànge euh, thème bi sëriñ Abdou Lahad wax muy xasiid ak Matlabul Fawzayni moom lañuy gaaral rek gaaral gu gàtt xam naa ne sax moom ci njëlbeen dina baax ma wax ne ñëwuma fi ngir wax lu kenn xamut ci xasida gi loolu moom képp koo xam ne dangaa ngaa ñëwoon ngir dégg loo xamul yaakaar naa ne ngir gañe waxtu bi mën ngaa euh, mën ngaa dellu rek bala bala laa dog di fekk àll ñëw ma fi ngir wax lu kenn xamutoon damay ñëw rek ngir wax li ma baaxoo dégg fii rek ñu di ko wax loolu rek laa ñëw ngir wax siwaat ko ci waxtaan wi ni ko Sëñ Abdoulaye waxee mën nañ koo def ci yooyu bu njëkk bi mooy Matlabul Fawzayni am na ñaari ñaari wàll yu bokkut am na li ñuy wax jaane fikri bi mooy xalaat walla yi sëriñ bi euh, dëxañ ci biir mu doon yoo xam ne dañu ko war a jëmmal loolu ak wet la ci xasida gi donte am na geneen wet goo xam ne li liñ koy waxtaane bariwut mu jaanib ruuxaani bi wala irfaani gi googi diggu xóot goo xam ne mel na ne suñu mag ñi sax wet googu lañ gënoon a bàyyi xel ci xasida gi ñoom waaye wet gu njëkk gi xëy na ni ñu bindee thème bi ci lay gën a jooyal waxtaanu jëm te mooy yi ci sëriñ bi def ci biir xasida gi ba noppi bu waxtu yi desee lu ci xajal ak ñu xaj-xajal ko ci loolu nag mëne su ko waxtaanee te waxuñu tuubaa gi nga xam ne fi la sëriñ bi bindee xasida gi moo tax tomb mu njëkk bi ñu bëgg cee waxtaanee tuubaa rek ak sanc gi ak wàccuwaay bi nga xam ne sëriñ bi moom la ko joxoon ak jubluwaay yi mu ci amoon bi mu fiy ñëw su ko defee ñaareelu tomb bi ni ko sëñ Abdoulaye waxee ñu gaalal ci xasida gi gaalal ko gaaw rek ci ñetteel bi nag ñu juqi ci biir xasida gi yoo xam ne sëriñ bi junj na ko ci wax nu mu bëgg dëkk bi mel ko ak ñi ne ci dëkk bi it nu ñu mu bëgg ñu mel ko kon ci tomb bu njëkk bi te mooy Touba ñu waxtaane ko dana am solo bala ñoo dugg ci xasida gi ndax dina tax ñu xam dayoo bi xasida gi am dëgg dëkk Touba xam ngeen ne mooy ñaareelu dëkk bi sëriñ bi sañc sanc ko ci atum li ñu gën a miin muy atum 1306 muy Wasochin di 1888 bi mu ko sañcee it euh, Touba di dëkk bi waaye ak kër gu nekkoon ci biir dëkk bi muy fii ñu nekk tey muy fii jumaa ji ne di kër goo xam ne wax nañu guddee woon na juróom-ñeent fukki mètre yaatoo juróom-benn fukk muy kër gi nga xam ne fi la sëriñ bi féete woon waaye amoon na fi geneen kër gu mu tuddee daalul xam ne fa la daan defee ay xalwaag yu dem demee ni ki noonu donte am nañu nekkoon sax ci njaboot gi ak daarul daarul rahman daan na fa dalal ñu bari ci ay gan rawatina lu mel ne borom xam-xam yi daan jóge gànnaar ne na fa nekk guddi nee nañ di def ay jaamu yàlla ak di fa dalal yenn ci kilifa yi nga xam ne daan nañ fi ñëw di ko seetsi loolu lépp boo ko boolee nag ci biir bu ñu waxee Touba mooy dëkk boobu noonu euh, ñu gis ne kon bi mu ko sañcee muy dëkk bi am fi kër yooyu muy muy Touba Daaru Salaam Daarul Astaghfirullah Touba Daarul Xuddus Daarul Rahman ak Daarul Minan xasida gi it mu bind ko tuddee ko Matlabul ni nga gis ne tur yooyu yëpp euh, sëriñ bi da koy yum tànn lay doon euh, xëy na moom askan bi mu bokkoon li ñu baaxoo woon mooy rek dëkk bu ñu sañc ñu delloo ko ci seeni askan wala ci seen i sant bëri na lool ci biir Sénégal ay dëkk yoo xam ne Mbàkke la la tàmbalee Mbàkke Sañanka Mbàkke Bawol gi mu gënee àdduna moom Mbàkke Kajoor gi mu wootee yoon wi yooyu yëpp euh, mënoon naa def noonu rek bi mu sancee te loolu it dara nekku ci waaye bi mu ñëwee xëy na gisin wu wuute bi mu am tax na ba faaw du mën a jaar ci yoon bi ñëpp jaar mu jël lépp delloo ko ci cosaan la mooy ci suñu borom subhaanahu wa taala dëkk bi mu njëkk a mu tuddee ko Daaru Salaam muy kër suñu borom muy kërug jàmm muy aljana waaye dëkk bi ci toppit it di Tuubaa gi di garab gu nekk ci biir aljana muy wéy daarul xuddus daarul mën na daarul raxmaan ak yooyu sëriñ bi boo delloo ci tur yi muy tànn ci ay dëkkam wala ci ay téere yi muy taalif li ci ëpp dana am ñett yoo ciy seetlu lu njëkk li mooy eh, wetug diine gi ak wetug ruuxaani gi da ko ci yitteel lool lool lool booy xool ci dëkk yi gis nga daaru salaam Tuubaa daarul xuddus ak yu ni sooy xool ci mbind yi da ngay gis euh, moom it anam gu mel noonu rek la ciy waxee lu mel ne jaalibatul maraaxib lu mel ne masaalikul jinaan muy yoon yi nga xam ne moo jëm aljana lu mel ne jazbul xulub li ñoddi xol yi jëmee ko ci suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne umpalewul dara yooyu yëpp euh, tur wi euh, connotation bi rek danga nga ci xamee sëñ bi am na lu mu bëgg lu mu bëgg def ci bopp yi ci tur yi rek tur yi ni mu koy tànnee waaye beneen anam it dana feeñ ci tur yi muy tànn mooy wàllu jikko ni mu koy yittewoo rawatina ci téere yi muy Euh, da ngay gis lu mel ne lu mel ne al abraar xisnul abraar euh, lu mel ne euh, lu mel ne al mutadarriin tuxfatul mutadarriin ak yu demee ni ki yoo xam ne sëñ bi saa buy tànn da ngay gis ne wàllu jikko yitteel na ko lool ci ci ci biir mbind mi al muhtadin kanzul muhtadin ni ki it ni mu yittewoo jikko yi dana yittewoo wane ne gisin bi mu am ci ci àdduna mooy ab jub ab jumtuwaay la bu nit ki di jaar ngir defar ci ëllëgam moo tax lu lu lu lu indi texeek àdduna ak àllaaxira da ko yittee lool ci yi muy wax lu mel ne matlabul fawzayni gii ñuy wax muy li ñuy sàkkoo wala sàkku euh, texeek ñaari texe yi muy tax ak àdduna ak àllaaxira lu mel ne nuuru daaray ni xijaab xijaabu euh, daaray ni euh, bari na lu lu lu lu sëñ bi di wax ci yooyu lu mu koy wax ba ci sax gis ngeen bind yi lu mu ay maraaxib ak yooyu wal maali li mu bëree lu mu ko ciy wax nga xam ne rek moom gisi ñu am daa wute lool ak ñi ko jiitu woon ci ahlu tasawuf ci jublu rek ëllëg bàyyi euh, àdduna ji ba mu ba mu ëpp moo tax ngeen di gis lu mel ne jaawatu lu mel ne rek la ci wax axasu min duniyaahu zaadi lil jinaan mooy àdduna bi da koy def euh, jumtuwaay boo xam ne rek wala waruwaay boo xam ne da ci war a jaar ngir jël yóbbal bu mu yóbbaale ëllëg loolu kon moo ko indi woon fii ci dëkk bi di Touba bi mu ko sañcee it lenn képp képp moo taxoon mu sañc ko mooy jaamu suñu borom subhanahu wa moo tax téeram boobu mu bind tuddee ko euh, adduaul kabir donte ginnaaw bi yeesalaat na ko am nañu jàpp na sax xis na labraar la euh, bi mu koy bind muy rek duwaawul kabir laa bëgg wax ca biir xam nga junñu ne ci loolu suñu borom allahuma innaka xutta zimaami ilal ardi lati xtartaha lii suñ borom yow kat yaa ma womat ba indi ma ci suuf si nga xam ne subhaanallah yaa ma womat ba indi ma ci suuf si nga xam ne yow yaa ma ko tànnal yow yaa ma ko tànnal ixtartaha lii ne ko bi ma fi ñëwee def naa fi ñaari kër yoo xam ne lenn gépp tax ma def ko fi mooy jaamu la ngën gi jaamu li abadu ko fihima bil imaani wal islaami wal ixsaani ne ko nag kon li ma lay ñaan rek mooy euh, nga xam ne ñoom tuddee naa leen euh, daaru salaam wa tuuba sam wa sammaytuhuma daara salaami wa tuuba tabarrukan bihima maa ngi leen tuddee daaru salaam ak tuuba li ma ci jublu nag di ko barkeeloo ci seen turandoo ndax daaru salaam mooy aljana tuuba mooy garab gu nekk ci biir aljana mu ne ko li ma ci jublu nag mooy di ko barkeeloo ci seen turandoo yooyu kon maa ngi lay ñaan fajaalhuma bi fadlika wa bi jaahi rasulillahi wa bi jaahi wasilati ilayka sallallahu alayhi wa sallam saalimatayni ghaanimatayni maa ngi lay ñaan nga def ci nga def fi ñaar yooyu muy al ghunm wa salaama maa wala boog asalaamatu wal ghunm nañu am nañu am jàmm nañu am xéewal tamit kon leeral na ne dëkk bi loolu rek moo ko fi indi woon te mooy ñëw ngir jaamu suñu borom subhaanahu wa taala loolu sax gis ngeen ci biir xasida gi bi mu ñëwee ba sanc ko rek eh, bi muy junj suñu borom eh, fa fa xumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka fa xumtu ne ko nag fa xumtu majzuban ilayka jug jug naa nga nga ñoddi ma jëmee si ma ci sa bopp min ka tey ci yow laa jóge woon bi ka teyit ci sa ndimbal rek laay jaaree ñëw muy laa xawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim bi ka alayka teyit ci yow rek laay wakkilu muy tawakkaltu ala allah war a di suanka ne ko te loolu maa ngi la ciy gërëm te lu ci topp rek euh, gërëm naa ci li war a ñëw lépp euh, mufawwidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka summa ilayka laa ilaa sirwaak summa ilayka laa ilaa siwaaka xad sirtu lamma lam aji sharwaaka bi ma xoolee ba gis ne Euh, yow rek yaa fi nekk nag banaa lépp lu dul yow te jublu la ndax xam ngeen sëñ bi ci dundam bi mu ñëwee Touba loolu ci beneen étape bu bees la dundaat moom la duggaat moom sëriñ bi soppi ni mu doon jàppee mbir yi soppi ni mu taxawaayam soppi doxalinam euh, loolu kon euh, danañ ci xamee rek jubluwaay bi nga xam ne sëriñ bi moom la amoon bi muy dugg si bi muy sañc sa dëkk bi xéewal yooyu nga xam ne suñ borom baaxee nag ko nag ci jot gi mu jot ci dëkk bi ndax xam ngeen sëñ Modou Khari Bousso maami sëñ Abdou Lahad mi am na jotaay bu mu séq ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ko ci nettali ay nettali bari am na bu mu ko ca wax ne ko tuubaakat li tax ma bëgg ko bëggin wu kawe wii nii li ko waral mooy suñ borom dafa dajale woon xejjam yépp wan leen tawféex ji ci dëkk bi ji ci barab bi ñëpp bëgg ko bi ko ñëpp bëggee ku ne bëgg ko suñ borom ne leen léegi ginnaaw deme na noonu da di bàyyi suuf si mu tànnal boppam nee na suuf si tànn ma man sëñ bi nee na looloo tax bëggeel gu gu googu am suñu diggante man ak dëkk bi looloo ko waral xam ngeen jamono ji mu nekkee njaareem am na jamono joo xam ne sax ndox mi mu jëfandikoo sax fii lañ koy rootee te ba ba ñuy àgg njaareem du laal suuf ba ni mu xëyee ne suñ borom xamal na ko nekkoon li mu ko defal ci ndoxum Tuubaa defal na ko ci teen boobu nekkoon ci biir kër gi kon loolu di wane fonkeel gi mu fonkoon dëkk bi moom moom sëriñ bi loolu nag moo tax ba bi mu fi ñëwee mu jàpp ne xéewal gi mu doon wut yëpp jot na ci fa ju tëll yow ma euh, bi xayri mina ni waxutta ni ila qatifaa sunani jox nga ma xéewal li gën a mag tey doomal nga ma ba fii nga xam ne dinaa fi mën a jaamu yàlla ngën gi jaamu kon sëñ bi li ko indi woon fii rek mooy barab bu mu jaamoo yàlla waaye barab boo xam ne euh, dafiy mën a euh, jëmmal li nga xam ne moom la indi ndax sëñ Tuubaa bi muy doog a ñëw barab bu mel ne Tuubaa mënu ko woon a ñàkk moo tax wër na ko lu mat juróomi at ba juróom-benn yoo xam ne bi mu wootee ba ni muy agsee Tuubaa barab bu mel noonu lay wut barab boo xam ne dina fi mën a nekk mook jaboot gi nga xam ne ñoom la ñoo ko wuy si ci woote bi mu woote ngir mu ànd ak ñoom ci yoonu siraatal mustaqim ak yoon wi nga xam ne moom la indi munutoon a ñàkk lu mel noonu it ndax euh, bi ci njëkk mooy moom dafa ñëwoon ngir yeesal diine ak wammat mbooloo mu bari ci yoon woow nga mooy nga xam ne mooy yoon wi mu sóobu loolu benn la ñaareel bi it yoonu tarbiya wi mu indi woon du woon luñ miin ci fi mu ne te li doomu aadama baaxoo mooy saa bu gisee lu bees ci fi mu ne loolu choc danay faral di am ci ci diggante ñi ci bokk ak ñi ci bokkut kon mënutoon a ñàkk barab bu mel noonu loolu moo tax yoon wi donte Mbàkke Kajoor gi waajuram sancoon fa la ko wootee waaye diir bu gàtt la fa ne gis ne jaxasoo bi mënta ànd ak li mu bëgg moom ci tarbiya dëgg-dëgg mu ànd mbooloo mu néew moom àndaloon ñëw Mbàkke Bawol gi nga xam ne fi la sañ fi la fi la feeñe jamono diggante bu gàtt la fa nekk it ne rek jaxasoo bi bari na te bëgg wéet gi mu bëgg mënagu ko am donte foofa nekk na fa ci ñetti barab yi bokkut waaye fu mu nekk rek xam naa mel ne rek li mu bëgg dëgg amagu ko mu mu jox sëñ bu soobee këram gi mu amoon ci Mbàkke dem sañc sañc Daaru Salaam ba ni mu fa nekkee ab diir it mel na ne loolu ba léegi topp ko mu jox ko maam Cheikh Anta rakkam ñëw sañc ci Tuubaa gi ginnaaw bi nga xamee ne wër na ko ba gis ko ba keroog bi mu ko gisee nag bi ko mag ñi ñi ko njëkk gis bi ñu ko fekkee fii mu xamal leen ne leen li mu doon wër lépp nag jot na ci bis ni ki tey ne nañ ko defal fii kër ci lañ daal di dem Daaru Salaam indi ay bagage xam jël na ay weer laata askan laata njaboot gi di doog ñëw di sañc si fii kon loolu mooy historique bu tënku rek ci fi sëriñ bi jaar ba sanc dëkk bi ak li taxoon mu sanc ko te mooy mënu ko woon a ñàkk sanc ndax soxla woon na barab boo xam ne dina fa wéet ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wuy si ci woote bi ngir mu mën leen a def ci ñoom jikko yi nga xam ne moom la bëggoon dëkk boobu nag bi mu ko sancee dafa mel ne ni mu ko bëggee moom sëriñ bi dafa bind ak xasida goo xam ne mooy xasida gii ñu war a waxtaane muy matlabul fawzayni te mooy ñaareelu tomb bii nga xam ne moom laa war a tàmbali nii matlabul nii di xasida goo xam ne sëñ bi nee na ñaar la ci def mooy addu'a a shukr maanaam da ciy sant suñu borom ci xéewal yi mu ko jot a defal ngir mu dolli ko di ko ci ñaan ci yeneen yu mu bëgg mu dollil ko ko ci xasida gi nag sëñ bi day mel ne li mu bëgg dëkk bi mel ko li mu bëgg mu am fi li mu bëgg waa dëkk bi mel ko ci ay jikko loolu la dëxëñ ci biir xasida gi teewul nag xitaab bi discours bi li ci sëñ bi bind dafay xaw ma jagoon naa laay wax wala maanaam dafa doon loo xam ne day am ñaari wàll maam bu jógee ci sëñ bi jëm ci suñu borom subhaanahu wa loolu ay ñaan la maanaam ay ay ay ay ñaan la yu muy sàkku ay talab la waaye su jógee ci sëriñ bi jëm ci njaboot gi nag loolu ay ndigal la yu mu leen di digal ngir ñu góorgóorlu ci ñoom seen kem kàttan ba jëmmal bëgg-bëgg yooyu nga xam ne moom la am ci biir dëkk bi kon ñaareelu tomb bi mooy gaaral gu gaaw rek ci xasida gii di la Matlabul nii xam ngeen tur wi ñu ngi ko tuddee la bul Matlabul nii muy sàkku ñaari texe yi muy texe àdduna ak alaaxira muy masdar mii mii donte xay na mënoon naa nekk zarf waaye fii moom masdar mii yi lay gën a lëng waaye tur wi wi ko sëriñ bi tuddee xam ngeen sëñ bi ci man manhaj wala méthode bi nga xam ne moom lay ëpp fu muy jaar di ci tuddee xasida yi léeg-léeg mu am xasida yoo xam ne tur wi da koy def ci biir bayit yi ci misaal lu mel ne jaalibatal maraaxib samaytuhaa jaalibatal maraaxib bi fii ajilin kan ajilin li raaxib bi muy yooyu da koo dugal ci biir léeg-léeg mu am tur yoo xam ne da koy da koy ber doo ko gis ci biir xasida gi waaye tur la bu muy ber noonu rek lu mel ne Matlabul Fawzayni mën na mën na ca bokk lu mel ne xëy na Xulub ak yu mel noonu am na it yoo xam ne sax du leen wutal tur da leen di bàyyi noonu rek léeg-léeg mag ñi nag ñoom xool ci liñ ko tënkee wala yooyu ñu wutal ko di ko woowee noonu lu mel ne tey eh, xasida gi ñuy wax jawartu donte jaawartu lañu war di wax lu mel ne loolu dañoo delloo rek ca lañ ko tënkee muy jaawartullah bi kitaabihi ilaa duxulee jannata kon sëriñ bi tuddee ko Matlabul Fawzayni jubluwaay bi waxoon naa ko sànq mooy sant suñ borom ci xew li mu ko defal di ko ñaan yeneen yu mu bëgg mu dolli ko ko taalibe yi nag ñoom war koo déggee ay digal yu leen sëriñ bi jox kañ la ko taalif bi mu sancee Touba ba noppi la ko taalif fii ci Touba la ko taalifee wax nañ ne sax fii ci kër sëriñ Saalix radiyallahu anhu ci biir foofu la ko taalifee barab ba sax garab gaa nga fa woon um, barab ba ba léegi keesu Matlabul Fawzayni lañ koy woowee muy fii ci kër sëriñ Saalix kon soriwuñu dara fi ko sëriñ bi fi ko sëriñ bi taalifee kon fi sëriñ bi taalifee xasida gi soriwuñu dara xasida gi it ci baxru rajaz la ko sëriñ bi bind li mu bëy di ci nekk it mën na ñaar téeméer bayit ak fanweer ak juróom-benn ñaar bayit ak fanweer ak juróom-benn moo ne ci biir xasida gi tolloog li mu kun loolu xam naa ñoom sëñ Isaa ñoom ñooy gën a xam yooyu bu dee tënku xasida gi it ne ko sëñ bi tabaxe ni ko bindee mooy dafa def genn tarjumaan ci njëlbeen gi teg ci bayit yi mu ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn yi defaat geneen tarjumaan ci mujj gi xam ngeen sëñ bi ci tarjuma tarjumaan yooyu li ñuy woowee tarjumaan ñun loolu am na nu nu mu ko baaxoo def ci xasida yi léeg-léeg nga gis xasida goo xam ne du am tarjumaan ci njëlbeen gi du ko am ci muj gi léeg-léeg nga gis goo xam ne ci njëlbeen gi dong lay def tarjumaan mujj ga du ko am léeg-léeg am yoo xam ne ca mujj la koy def waaye du ko def ci njëlbeen gi léeg-léegi mu am goo xam ne da koy def njëlbeen gi def ko ci mujj gi damay tënk nii rek ne kon bu ci ne danaa ci a joxee misaal Matlabul Fawzayni nag am na genn ci njëlbeen gi am na genn ci mujj gi moo tax gu njëkk gi da koo tàmbale rek ni mu baaxoo tàmbale mustu ju seytaane wax bismillaahi rahmaani rahiim indi ay ay ay ñaan yu ñu xam ci sunna euh, yoo xam ne ay muslaay la ak yenn ci ay ayaat quraaniya ay ñaan yoo xam ne bokk na ci sax yi ci gën a bari yooyu seydna ibrahim alayhi salaam doom wax bi muy sañ ci makka yooyu la ci indi yenn yi sax dañ koy baamu indi suratul xadr indi suratu xuraysh lu ci nekk ñu di ko baamu bi mu noppee nag mu indi fukki aaya ak benn yoo xam ne mooy yooyu moo waxoon nga xam ne yi ci ëpp ci ñaani seydna ibrahim yooyu la bi mu noppee nag mu ne wax nga te loo wax dëgg la te loo digge di ko def yaa ne nag ñaan leen ma woo leen ma ma wuyu leen yaa ne it su ngeen ma santee dinaa leen dolli kon maa ngi lay ñaan te di la sant ci xasida gi tey ñaan mbooleem lu ma ci wax nga nangul ma ko bi mu demee ba ca mujj ga bi mu indee xasida gi ba mu jeex mu ne ko suñu borom yow kat yaa waxoon te lépp loo wax di ko def te loo diggee it loo wax dëgg la te loo diggee di ko def kon nag yaa waxoon ne man jege naa ko ma woo dinaa ko wuyu kon woo naa la fii maa ngi lay ñaan nga wuyu ma ci xasida gi li ma la ci wax loo diggee di nga ko def kon maa ngi lay ñaan mboolem lu ma la ñaan ci xasida gi nga may ma ko mboolem lu ma la ñaan ci nga musal ma ci ci xasida gi nga musal ma ci ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu noppee mu indi fukki bayit ak juróom yoo xam ne bu ci ne rabbanaa la tàmbalee wala rabbi di ay ñaan yoo xam ne seydina ibrahima ak ñaan seen borom mu jël yooyu barkeelu ca ne ko nag maa ngi lay ñaan nga julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli goo xam ne da ñu ciy teqaleeg seetaan ak lu ànd ak moom ba faaw taxaliñ ci ak Yonent bi sax alayhi wasallam euh, boole ñu ci biiram ba faw te may ñu mujj gu rafet daal di koy tëj kon noonu la sëriñ bi euh, tënkee xasida gi fonk na loolu Tuubaa fës na loolu ci biir xasida gi bëri na ay tur yu ko ciy woowee boo demee ci biir xasida gi am na fukki tur yu bokkut yoo xam ne bu ci ne sëñ bi dana ko woowee dëkk maanaam du ko yoon rek la rot ci gi muy muy wajal ilaahi maskani tuuba abad mislasmiha bi jaahi xayri man abad yi ci des yëpp yeneen tur la koy woowe dina ko alxarim xima albina binaiya maskani almaskan daar daari albalad yooyu yëpp dina ko woowe bi ma koy xool man na fanweer yoon ak juróom-ñaar yoo xam ne woowee na ko ci ay tur yooyu noonu xeet yooyu ci biir xasida gi am na it ay tomb yu wuute yoo xam ne sëñ bi tudd na ko ci biir xasida gi bi may xool rek li mu yoon yi mu ci tudd suñu borom subhaanahu wa taala di ko ci woo nga xam ne da ko ci woo ci tur yaa nangam yooyu mat na téeméer yoon ak fanweer ak ñett fanweer ñeent yoo xam ne woo na ko suñu borom ci turam wàllu xam-xam sëñ bi yitte ko yitte woon na ko lool ci biir dëkk bi ci anam gu leer ñaan na ko ci ñaar fukki yoon yu bokkut yoo xam ne ci ay barab yu bokkut yoo xam ne xam-xam la ci ñaan ci biir dëkk bi xam-xam boobu sëñ bi waxit lim ci jublu mooy ñu jëfee ko moo tax jëfe gi moo gën a fés jëfe gi ci biir xasida gi sëñ bi tudd na ko ci juróom-ñaar fukki barab ak juróom-ñeent yu bokkut yoo xam ne gu ci ne ci jëfe xam-xam la ciy ñaan maanaam jëfe xam-xam mooy jaamu yàlla laa bëgg a wax jaamu yàlla lu mat juróom-ñaar fukki yoon ak juróom-ñeent teewut lim fonk sunna tax ba fonk diine mu beraat sunna di ñaan ñuy roy sunna ñuy jëfe sunna lu mat fukki yoon yu bokkut ci biir xasida gi ba tey yooyu yépp nag li ci jullit bi di jële mooy ay jikko rafet sëriñ bi tudd na ko lu ma juróom-ñaar fukki yoon yu bokkut ci ay jikko yu bokkut moom maandu ragal yàlla am yërmande euh, tabe ak yu ni mel ci juróom-ñaar fukki yoon yu bokkut ñaan ne yoon jàmm am ci biir dëkk bi jàmm am fi ak dal am fi ci juróom barab yu bokkut nekk noonu wér yaram juróom yoon yu bokkut lu jëm ci wàllu koom fukki yoon ak ñaar ak nag yeneen yoo xam ne damaa mujj rek ne naa bàyyi ndax bëgguma mu génne ma ci li ma tax a jóg dëgg-dëgg kon juróom-ñett yooyu moom laa ci doon fesal rek donte des na yeneen ñeent yoo xam ne dama ko mujj bàyyi noonu yaakaar na juróom-ñett yooyu nag xam naa gën cee yaatal sax dina xaw a xat waaye ci juróomi yu njëkk yi dinaa ci mën a taxaw te mooy doon ñetteelu tomb bi muy euh, Touba ak waa Touba ni sëriñ bi bëgg ñu mel te lépp di jóge ci biir xasida gi loolu kon mën nañ cee jël juróomi tomb yu bokkut bu njëkk bi mooy lu jëm ci wàllu kaaraange ci biir dëkk bi ñaareel bi lu jëm ci wàllu ay xéewal maanaam am koom yooyu liñ koy doyee ñetteel bi mooy lu jëm ci wàllu xam-xam ñeenteel bi lu jëm ci wàllu jaamu yàlla ndax xam-xam it jëfee ko lañ koy doyee juróomeel bi mooy jëfe xam-xam li muy jural jullit bi te mooy ay jikkoy rafet kon mooy jikkoy rafet juróom yooyu li ci sëñ bi tudd te ne bëgg na mu dëkk bi am ko dëkk bi ñëwaguma ci waa dëkk bi bu njëkk bi di wàllu wàllu sécurité mën nañ ko woowee noonu loolu am na ay anam yu wuute yu ñu ci mën a waxtaane sécurité ci wàllu barab bi sécurité ci wàllu ba ci li ñuy jëfandikoo waaye sécurité ci seen wàllu pas-pas maanaam lu leen sàmmal seen pas-pas ba dara du ko kooj dara du ko du ko du ko rax loolu it sëriñ bi ñaan na ko ay yoon ci biir xasida gi bu dee lu jëm ci kaaraange nii rek ci barab bi ci juróom-ñeenti barab yu bokkut sëriñ bi mi ngi ko ci tudd am na foo xam ne mi ngi ñaan suñu borom mu aaral ko dëkk bi ci mbooleem xeeti ay ak mbooleem xeeti lu ñu war a muslu rek te kon te loolu nag nag ma ko gaalanteel ba faaw wañal xarimana xariman amina wa kun bi xifzihi kafilan daamina ne ko maa ngi lay ñaan kat suñu dëkk bi nga aaral ma ko def ko muy fu wóor muy fu sàmm te loolu nga nga féetewal ma ko bayit wii sëñ Isaa Géey mii moo ma njëkk leeral ne Cheikh Sidi mu Cheikh Sidi mu moom Cheikh Sidi El Kabir moo wax moo wax bayit yi ci ay bayit yu mu def Cheikh mu Cheikh Sidi Mouhamad mooy bàyyi Cheikh Sidi Ababa suñu saa géej mi moom mu njëkk a leeral ci wala ko njëkk a ni mu ñaanee loolu it ñaan na borom dëkk bi ne ko mbooleem yi ak ñi nga xam ne xaw ma ay woyu la ñu doon wala ay sàmba booy daal ñooñu yëpp suñu borom musal ci dëkk bi euh, wa maskani sallim min al fujaari wam nun ala al bi maa in jaari ne ko maa ngi lay ñaan sama dëkk bi nga musal ci nga musal ko ci mboolem ñi nga xam ne ay kàccoor lañ ak ñi nga xam ne ay yàqkat lañ bayit wi wax nañ ne moo jiitu sax xasida gi moom far ndax nee nañ am na bis ñeen bi sëñ bi doog sañ ci dëkk bi ñenn ci mbokki taalibe ñu demoon di wuti ndox ndax boobu dëkk bi manqué woon na ndox lool fii ci boori mbal ba fay wuti ndox na am na ñu fa fekk ci ay ci ay sàmm ñooñu yaataluñ leen ci ndox mi dàq leen génne leen ay ay ay ngànnaay biñ ñëwee ci sëriñ bi wax ko ci la sëriñ bi wax bayit wi wa maskani sallim min alfujjaari wan nun ala al ahli bi maa ngi jaari te nee nañ booba defagul xasida gi waaye it ba léegi ci wàllu kaaraange ñaan na suñ borom ne ko sa mbalaanum kiiraay moom mu nga xam ne kooku muur mu mucc maa ngi lay ñaan nga muural ma ko sàngal ma ci dëkk bi ak mboolem ku ne ci biir dëkk bi wadrib suraadi wadrib suraadiqaati xifzika ala daari wa ma fiha jamian musjala maa ngi lay ñaan dëkk bi ak mboolem ko fi ne nga sàng leen sa mbalaanum kiiraay moom mu nga xam ne koo ko sàng rek mu mucc waaye ba ci xeeti mala yii sax muy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu musal ko euh, musal dëkk bi ci seeni ay faxmi faxmi ximaaya liyakun xisnan xasin an kulli zinaabin wa zufrin kulla xiin bi ka aqattu yaa ilaahi alxasada wa xayatan wa aqlaban wa aswada ne ko kat maa ngi lay ñaan nga aar dëkk bi musal ko sax ci lépp loo xam ne rek ci gàttal lépp luy fette baa muy màtte baa muy fàdde yooyu yépp nga musal ma ko ci ba tudd ko sax ne ko gaynde yi sax lugg na leen wala jat na leen doxal na seen digganteek ak ñoom loolu moom fii sëñ bi doon bindee xasida gi rek feeñ na ci ndax fii di ko sëriñ Saalix mu ko doon bindee wax nañ ne euh, gaynde dàq na njaay àll ba mu ñëw njaay gi laqatu ci ginnaaw sëriñ bi ci fi mu taalifee xasida gi gaynde gi dëpp wax nañ ne sëñ doon na nettali ne gaynde gi xel bi mu doon dawee bi mu ñëwee ba ba jub sëñ bi ni mu freiné poussière bi dafa jug ba laal sëñ bi sax ndax taxaw bu am doole bi mu taxawee te loolu fi sëñ bi doon bindee xasida gi tey lu ko jiitu sax lu jiitu lii ci ñeenti at wala yooyu defoon na ko ca Mbàkke Bawol ci ba muy taalif Masaalikul Jinaan ci loo xam ne sëñ Mbàkke Buso moo ko nettali boppam moom it ne moo ko fekkee moo tax bi mu fi jógee ginnaaw bi yëpp tubaab yi jël ko di ko booleeg gaynde da xam ne rek euh, gisuñu ko xam bu ñu gisoon ko xam danañ ko booleeg leneen lu dul gaynde moom ndax gaynde juboon na ko ba tàyyi dëpp def ko dara moo tax keroog bi ñu ko boolee gaynde gi gis nga sutura si ko ci suñu borom defal sëñ bi nettali na ko sëñ Moodu Xari ne ne bi mu jubee gaynde gi yonent moo ko ne Ahmadu taxawal maa lay jiitu nee diggante boobu ki ma doon yóbbu la euh, ne ma xanaa xanaa da ragal gaynde gi moo tax demal tuuti rek léegi tey nga xam dee li muy saf nee na gaynde gi bi mu gisee yoon bi saa dafa sukk ci suuf daal di jógaat wër ko moom sëñ bi song waaju waaj foofu la moom waaju foofu la yam na loolu sëñ mag bi nettali na ko sëñ Muudu Xari ci waxtaan woowu mu seqoon ak moom ci njaareen kon loolu yëpp ay yu yu man yu ñett ñeent yu ma jukki woon la rek donte juróom yoon sëñ bi tudd na ko dëkk bi di ko ñaanal kaaraange waaye lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram it noonu kaaraange ci wàllu googu noonu la ko sëriñ bi ñaanee ngir xam ne wér-gi-yaram li mu bëgg ci bi muy sañc dëkk bi ci njaboot gi mën a jaamu yàlla gën gi jaamu yàlla loolu munta ne bu ñu amul wér-gi-yaram gi nga xam ne moom charte la ngir nit ki mën a dund dund gu baax moo tax mu tàmbalee ko ñaan ko ci boppam yaa man ala anil makaani wal arad inni saakirun huna wa bi marad fakun anisi washfini min as-saqam xata akuna saalikan xayra laqam yow kat suñu borom yow mi nga xam ne kawe nga barab mboolem yi gaar mbindeef fi yow du la gaar yow dëkk si naa fii waaye nag tawatan ci man maa ngi lay ñaan nga wettali ma te defal ma wér yaram ba ma mën a soobu ci siraatul mustaqim mën a jaam yàlla nga xam ne bayit wii sëñ bi leeral na ci ni jullit bi ni taalibe bi war a jàppee wér yaram mooy mu jàppee ko xéewal goo xam ne da koy jëfandikoo ci jaamu suñu borom subhanahu wa taala maanaam jumtuwaay bu war a jëfandikoo ngir jaamu suñu borom subhaanahu wa taala noonu it la ko ñaanee ci biir ci wàllu wér ne ko maa ngi lay ñaan nga defal ma mucc ci mbooleem xeeti balaa yépp te musal ci mboolem julli ñëpp wa najjini wal muslimina min balaa wal taqi jusmaniya fi qabril bila loolu it mujj ko sax ñaan ne ko mboolem xeeti balaa yépp ak fépp fu ñu mën a jóge ndax balaa yi ci ñetti balaa rek la mën a jóge moo tax moo xam ñu jóge ci kaw wala ñu jóge ci suuf wala ñu jóge ci ngelaw li mu ne ko fu ñu fi mën a jóge maa ngi lay ñaan nga musal ma ci te musal ci mboolem ñi nga xam ne dëkk ci dëkk bi wa kun mu'izana min al waba'i wa kulli nazilin min as-samaa'i wa kulli ma yadur wa kulli fi l ardi wa ma baynahuma yakunu ya rabb as-samaa mboolem loo xam ne day wàcc jóge ci asamaan wala muy jóge ci suuf si wala muy wër ci seen diggante mooy ngelaw li maa ngi lay ñaan musal ma ci te musal ci mboolem koo xam ne dafa dëkk ci dëkk bi waaye it ñaan ko ne ko nag maa ngi lay ñaan nga daq mboolem xeeti balaa yeeg tawat yi ci dëkk bi te nga def fi naan gu tey ak lekk gu tey wan fil waba wal balaaya kullaha anha wa tayyib shurbaha maa ngi lay ñaan nga dàq mboolem xeeti balaa yeeg tawat yépp waaye nga def fi lekk gu tey ak naan gu tey xam ngeen ba léegi fi ñu toll gis ngeen ci bayit wi sëñ bi dafa dafa lëkkale dàquk xeeti tawa tawadeeg balaa yi ak teeyug lekk geeg naan gi nga xam ne moom la jëfandikoo ci dëkk bi te xam ngeen médecine moderne fi ne fi ñu toll mooy wax nañ ne ci wàllu régime aliment régime alimentaire bi maanaam li nit ki di jëfandikoo ak li muy ci ci ci wàllu lekk daa am jeexit lool ci wàllu wér-gu-yaram yi nga xam ne moom moom moo moom ci wàllu tawat yi nga xam da koy dal maanaam gis ngeen ne ba ci suñu réew mi sax yenn xeeti tawat yi mi ngi fi tàmbalee bari rek biñ tàmbalee lekk yenn xeeti lekk yi maanaam ba ci dugub ji biñ tàmbalee di ko wàllu ci machine yi ci lañ gis ne yenn tawat yi ci la tàmbalee bari ci dëkk bi ndax machine bu wal bu ne yaa ngi gis ne tame boobu ñu koy walee day xëy xëy jeex léegi loolu jeex fu mu jaar fu dul ci sunguf si suñ laa doon mm, suñ ko defal loolu ko indil rek yooyu rek ci la jëm nga xam ne xeeti tawat yooyu yëpp mu ngi tàmbalee am ci yooyu bi mu duggee ci suñu biir moo tax suñ bi lëkkale na bu baax euh, dàqook tawat yooyu noonu ak teyeeg li ñu lekk ak naan gi ñetteel bi di lu jëm ci kaaraange ci seen wàllu pas-pas maanaam lu rawale seen pas xam ngeen sëñ bi yittewoo na lool pas-pasu yi pas-pas yi dara bañ koo kooj dara bañ koo yàq dara ban koo rax moo tax gis nga moom sax bi mu ñëwee ci dëkk bi bi mu sant suñu borom ci njëlbeenu xasida gi rek junj na jëmale foofu shakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani sant naa ko bu baax moom suñu borom kat ndax womat ma ba indi ma ci barab bi nga xam ne dàqale na ma fi mbooleem loo xam ne gàllankoor la woon ci man moom bi mu ñëwee ci dëkk bi rek daa gëm ne li mu doon wut moom jot na ci bis ni ki tey moo tax looloo ko indiwoon ci dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi moo tax daan wax ne tubaab bi mu fi ñëw ñaar la fekk mooy ab wind ak saawo te xam ngeen barab bi barab boo xam kenn mosu fee dëkk ba bu ngeen xoolee ci rapport bi ñu njëkk def di ci tudd ne sëriñ bi mu ngi fi ci tubaab bi te mi ngi ci téereb suñu Omar Ba boobu euh, ci mille 19 mars 1889 nga xam dañ ciy wax ne am na ku ñëw Ahmadou Bamba foofu ñuy woowee forêt Mbaafar wax nañ ne man daf na fa ab kaas am néegu ñax ba fa la dëkk nañ ko xool ba xam loolu dëgg la am déet daal suñ xoolee ba xam ne loolu dëgg la rek nañ ko bàyyi xel te xam ne foofu moom gëmut bi mu koy bi mu fay dem ndax barab la boo xam ne dafa ne ci digg bi diggante Bawol ak Kajoor ak euh, yu ni mel ne nañ ko bàyyi xel te di ko xool ndax barab la boo xam ne nañ kenn mosu ko moom te dafa nekk ci diggante gox yooyu ñu wax kon noonu ma ko waxee woon sànq ñaanoon na suñ borom it mu musal ñi fi ne ci jikko yi ñi nga xam ne ay kàccoor lañ muy wamaskan yi sallim minal fujjaari ñaan na ko it dëkk bi mu def ko dëkk boo xam ne dëkkub njub lay doon dëkk boo xam ne dëkkum njub lay doon dëkk boo xam ne it dañ ciy muccee ci mboolem tooñkat wajaalhu maskana xurujin min zulam lin nuuri wakfir anhu kulla man zalam ne ko maa ngi lay ñaan kan nga def ko muy dëkk boo xam ne dañ ciy jaaree di génn ci mboolem xeeti euh, lëndëm wala ndëngate wala naka sudul noonu yi nga xam ne dina bëgg ko waaye maanaam mën na nekk dëkkum jub rek waaye na nga ko defit dëkk boo xam ne képp ku fi nekk suñu borom dana la musal ci bépp tooñkat niki noonu ñaan na ko mu def ko muy dëkk boo xam ne loolu li ci sëñ bi wax bari na loolu xam ngeen lu jëm ci wàllu euh, loolu sëñ bi wax na ko ay yoon ci biir am na fu mu koy wax sax ne ko wañaal binaa iya binaa aafiya yajuruni ilaa xuyulin saafiya na doon dëkk boo xam ne rek dëkk bi ci boppam environnement bi rek day jubal day jubal nit te loolu ku tàmm ku miin génn ci biti xam ngeen ne Touba moom barab bi jëmmi dëkk bi rek am na nu muy dimbalee ni ñi fi ne ci lu baax da leen di yomb loolu nag ñi fi ne dëgg-dëgg duñ ko xam waaye ñi dem ñi fi ne tey léeg ñu génn ñëwaat ñoo ñoo ñooy gën a xam dëgg-dëgg tawféex ji nga xam ne ñi nekk Tuubaa am nañ ko ci lu baax ni mu lay yombee ab safaan ni mu lay jafe ab safaan ni lay jafe waaye it ci gàttal rek ñaan na ko ne ko bépp safaan bépp safaan rek maa ngi lay ñaan nga daqal ma ko ba bu mu am ci dëkk bi yaa daafi al aswaai wal akdaari bil mustafa bil mustafa dfa kulla suu an daari maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaay dàq mboolem safaani yaay dàq mboolem naka sudul noonu yi maa ngi lay ñaan ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga dàqal ma ci dëkk bi lépp loo xam ne du yiw lépp loo xam ne du lu baax loolu nag déggin woowu la ci kilifa yi am ba jamono yi Cheikh laxat mu taxaw temm ci dëkk bi euh, mu mu tere fi yooyu mu fi tere woon moo tax bi ñu ñëwee ba 18 euh, septembre si sëñ sëñ ab Lahad taxaw ci taxawaay ba mu ci taxawoon donte sëñ Muntaxa yeesalaat na ko ci 24 juin 2000 2019 ngir yeesalaat tere yooy nga xam ne moom la sëñ sëñ Muntaxa moom la Cheikh Abdoulaye tere woon te mu doon tere yoo xam ne it lislaam a ko tere woon démb ak bërki démb sëñ mag bi mu sañcee dëkk bi booba lañ ko daloon tere ci dëkk bi waaye nag ginnaaw ci am réew lañ ne moo xam ne dem nañ ba mujj mu am indépendance am ay yoon ñu ñu fexe ba dugal ko ci yoonu réew mi ba réew mi nangu ko ba yooyu noonu lislaam tere ku ko def ci dëkk bi yoon mën a dal ci sa kaw Euh, am na taxawaay bu am solo boo xam ne am na ko ci sàmm war mooy dëkk bi muy ñaar yooyu moom lu am solo la mooy fexe gi sëñ Modou Moussa fexe ba dëkk bi nekk titre foncier ak sëñ Abdoulaye loolu mu tere ñaar yooyu joué na joué nañu rôle bu mag a ci sàmm war mooy dëkk bi loolu xam ngeen moo wéy ba ni ko sëñ Abdoulaye dénkee suñu mbokk yi sëñ Muntaxa dénkee suñu mbokki Baay Faal yi ñoom it ñu di ci am taxawaay yu am solo ci jamono yi yëpp ngir rek di fàttali nit ñi li nga xam ne moo taxoon sëriñ bi sanc dëkk bi li ñu koy tënkee ci foofu rek ci tomb boobu te mooy lu jëm ci wàllu kaaraange googu mooy sëñ bi ñaan na suñ borom jël mbalaanum kiiraay muur ko ci dëkk bi ci mboolem xeeti ay yooyu yëpp ñu ñu ñuy ragal wal wala tudxilil jamia fi maknuuni gaybika wax jub naa an il futuuni wa an shiraaril xalqi wal razaya wal jinni wa sheytaani wal balaaya maa ngi lay ñaan nga mboolem ñi ne ci dëkk bi nga dugal leen ci sa biir kaaraange googu nga xam ne ku ci dugg dina mucc nga musal ñu dox suñu diggante mbooleem xeeti fitna yépp fitna ju nëbb ju feeñ juñ xam juñ xamut musal ñu ci mbooleem yi nga xam ne duñu ay nit ñu yiw musal ñu ci jikko yu baaxul yi musal ñu ci jinne yi ak seytaan yi ak mbooleem xeeti balaa yépp ci ñaari bay di sëriñ bi tënk na ci mbooleem yi ñu doon wax yépp ci mbooleem xeeti ci xeeti kaaraange yi nga xam ne doon na ko ñaanal ñi ne ci dëkk bi bu ñu jógee ci kaaraange googu bi ci topp mooy lu jëm ci wàllu wàllu koom wàllu koom ci biir dëkk bi te xam ngeen euh, ci biir xasida gi moom la sëñ bi di woowee lu mel ne di ko woowee léeg-léeg mu woowee ko alxayraat wa kasiran xayraati hadal baladi dina ko woowee alminanul muajjala euh, ak beneen am na beneen bu ko ñetteel euh, ñu noonu la ko sëñ bi di woowee ci biir ci biir xasida gi xam ngeen ne xéewal yooyu lu munta ñàkk la ci ab dëkk bu ñuy sanc ngir nit ñi man faa dund dund gu tey maanaam nit ñi ngir ñu mën mën a mën a mën a féetewoo jaamu yàlla te bañ cee rax leen dul loolu faaw ñu am ay xéewal yu leen yu leen yu ko mate sëkk moo tax sëñ bi ñaan suñu borom def xéewal yu bari ci biir dëkk bi ñaan ko ne ko kat maa ngi lay ñaan dëkk bi nga def ay xéewal yu baree baree bari yoo xam ne du wàññeeku mukk wa kastiran xayraati haazal baladi wa rizqahu wal takfihi an nakadi maa ngi lay ñaan dëkk bi nga def fi xéewal yu bari yoo xam ne eh, day saawaan day baawaan day bari loolu ci waa dëkk bi te nag bu mu wàññeeku bu mu jeex mukk waaye xam gi mu xam ne it xéewal yooyu munta jàppandi lu dul ne lu jëm ci wàllu li nit ñi di jëfandikoo moom day day dafi am day teey ci wàllu lekk ba pare moo tax mu jiital loolu wan fil waba wal balaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa aklaha ne ko kat lekk gu teey naan gu teey na am ci biir dëkk bi maanaam li ñu wax sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire ñaari bokkul la xam nga ndax nit ki mën naa am alalam sax bëgg a jënd lekk te du am ko jëndee waaye li ñuy li ñuy jëfandikoo na fi am luñ ko jëndee ci ñi ko war a jënd nañ ko am waaye ñaan ko mu def fi ndox mu ndox moo xam ne ndox mu bari ndox mu xéewale wa maskani sallim min al fujjaari wamnun ala al ahli bi maa in jaari ne ko nag na doon xéewal yoo xam ne da leen di yóbbu ci yeneen xéewal yu gën a mag mi wajalahu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala foofu kon sëñ bi wax na ndox mi xéewal maa ngi jàpp na sax xëy na waxu ndox kepp mën naa nekk waaye bëgguma xootal ci loolu daal waaye lu mën a xew rek ndox moom sëñ bi ñaan na ko ndox mu mu bari ci dëkk bi kon loolu it ñi nga xam ne ñooy yittewoo wàllu ndox ci dëkk bi ñoo it yi ay soññ la war a doon ci ñoom ndax sëñ bi sëñ Muntaxa taxaw na ci taxawaayu rafet def na ci li mën lépp macha allah ba def ci lu mënut kon kuréel yi nga xam ne ñoo ko séqit donte ay jàmbaar la ñu ngi def li ñu mën lépp lu ñu gën a mën a góorgóorlu ci anam googu rek nañ xam ne ñi ngi ci ñi ngi ci bëggug sëriñ bi bi mu loolu it mu ñaan suñu borom mu def fi ci dëkk bi alal ju maanaam wërsëg dëkk bi am wërsëg waaye nag wërsëg wu wërsëg wu lew wërsëg wu lew wa risqaha jaal atyab alxalaali fi l usri wal yusri ala tawaali matlabul fawzeyni bokk na ci yi mu gën a ràññi ko mooy sëñ bi baat yi muy jël bu ci nekk day mel ne fii moom li mu bëgg a wax baat bi rek moo fi baax bu ko dindi woon dugal beneen leneen lay wax ne ko na nga def wërsëgu dëkk bi mu nekk atyab alxalaali maanaam bokk ci la gën a lew la gën a lew te it loolu na nekk jamono ju ne bu mu dog bu mu dog mukk maanaam bu ñëpp nekkoon ci crise Touba moom ñoom bu ko yëg loolu nag ñi xam ne ñoo fiy liggéey ci wàllu économie wàllu commerce bayit yi moom war nañ cee bàyyi xel ci wattandiku lépp loo xam ne lu jëm ci riba la lépp loo xam ne lu lu lu lu dëppawut ak diine la loolu moom ñoom war nañ ko daw seen seen kem kàttan te xam ne sëñ bi ñi mu doon ñaan ñu yëngu fi ci dëkk bi mooy ñoo xam ne la ñuy def day day tege ci diine day tege ci diine ñaan na suñ borom ne ko mbooleem fu aw yiw ne nanga ma ko ñoddil mu ñëw ci dëkk bi te ñoddil ma ko ci juróom benni barab yépp xam nga li ñu gënoon a mil li ñuy wax les quatre points cardinaux muy penkook sowook gànnaar ak saalum sëñ bi da ciy boole kaw ak suuf da ciy boole kaw ak ne ko ci juróom benni wàll yépp fu fa ne nanga ma ko ñoddil mu ñëw ci mu ñëw ci dëkk bi wajbu lahal xayra min al jihaati assitti wakfiha anil afaati maa ngi lay ñaan nga ñoddil ma nga ñoddi ay xéewal indi ko ci dëkk bi ci juróom-benni wàll yooyu yëpp bayit wi it fi mu ne sëñ bi njëkkoon na ko wax laata muy def xasida gi ca Mbàkke Bawol ca xew-xew boobu waa Mbàkke amoon la fekk si ko foofu ci foofu mu bindee Masaalikul Jinaan bayit yam bayit wi bokk na ci lim noxoon bokk na ci lim noxoon waaye dinañ ci déggee kon ne lu jëm ci wàllu économie lu jëm ci wàllu investissement ay investisseurs ñëw di investir ci dëkk bi loolu lu sëñ bi lu sëñ bi ñaan ci dëkk bi la lu ñu war a taxaw la moo xam mairie bi la moo xam ñu mu war tourisme religieux war nañ cee taxaw ci ci dëkk bi ndax euh, Touba ni ko sëñ ko sëñ bi ñaanee ñëpp dañ fi am soxla ñëpp dañ fi war a ñëw ñëpp di jóge fu ne kon loolu it war nañoo am waajtaay woo xam ne dina tax ba euh, ñooñu ñemee te ñoo fekk siñu ñaan na it suñ borom ne ko na nga fii def na ko def na nga def dëkk bi mu am sécurité te am wërsëg wa ardahu jaal arda rizqin wa amaan wa rahmatin wa saatin kullawaan fii bi muy ñaan ci bayit bi boole na ñaar mooy boole na jàmm muy sécurité ak alal ju bari ba pare jiital jàmm ji ndax ku ne xam na ne jàmm mun ta ñàkk ci ab dëkk ngir ñi si borom alal yi sawar nga indi fa seen alal moo tax mu ñaan ko ne ko dëkk bi na doon dëkk jàmm waaye na fi wërsëg bari wa rahmatin wa saatin kulla awaan te it yërmande na fi bari maanaam ñi nga xam ne ñoo am alal it nañ yërëm ñi nga xam ne dañ leen a tane moo tax wet googu lu ci mat a bàyyi xel la ci ñi nga xam ne lu jëm ci jàmm ak sécurité ni ma ko waxee ab dëkk faaw mu ngir mu mën a avancer faaw istiqraar am fa te mooy faaw ak dal am fa waaye nag yërmande jooju it ñi nga xam ne ñooy yëngu yëngu ci wàllu wàllu yaxantu liñ ci war a xamee mooy Touba alal ji nga xam ne moom lañ fi amee warta doon loo xam ne rek wut àdduna rek lañ ci wut warta doon loo xam ne àdduna rek lañ ci wut waaye dafa war doon loo xam ne waruwaay lay doon bu ñu jaar ngir dem ëllëg moo tax ñi nga xam ne ñoo fi yëngu wala suñu borom dégg leen wërsëg war nañoo gën a bàyyi xel ci xam ne dëkk bi moom dëkk bu am particularité la dëkk la boo xam ne dëgg la sëñ bi na xéewal yooyu yëpp waaye ko woon rek ngir mu doon lu ñuy puukale wala loo xam ne dañ koy téye di ko fuyoo ci suñu biir waaye ku ne comme war na ko cee dimbale xam ne alal ji e, maanaam alal ak wërsëg bokkut nit ku ne lii alalam lii wërsëgam mooy lim ci lekk rek la ci des nag moom alalam gépp la bu faatoo mu dem ci yeneen loxo moo tax sëñ bi dafa doon ñaan xéewal yooyu rek suñu borom defal ko xéewal yoo xam ne murit bi da ciy jaaree ngir dem ci xéewal yu gën a mag mooy jaar waay la doon boo xam ne ngir làq ngërëmu suñu borom wajaxalhu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala ñetteel bi mooy lu jëm ci wàllu xam ni ma ko waxoon sëñ bi tudd na ko ñaar yoon yu bokkul ci biir xasida gi wajaxal binaa ya binaa ilmi wa wa xilmi maa ngi lay ñaan sama barab bii nga def ko mu barab xam-xam na Tuubaa doon dëkku xam-xam boo xam ne te xam ngeen loolu def na ci kem kàttanam bi mu fi nekkee moom sëñ bi moo daan jàngaleel boppam yemut ci di fi jàngale sampoon na ay jàngalekat yemut ci loolu lépp bi ñu ko fi génnee yóbbu ko ci géej géej fu ne bi mu ñëwee ba njaareem amoon na yéene taxawal fi daala joo xam ne euh, ni ko sëñ bàkk bu sa waxee daara daara joo xam ne takkoonu rexlata Sénégal waaw rexlata ahli Sénégal nga xam ne waa Sénégal gépp ku bëgg xam-xam da nga ñëw sàkku ji ko xam ngeen loolu la sëñ Muntaxa di dabu ci daara ji ak ne ci dëkk bi yëpp dañ ci góorgóorlu seen seen kem kàttan kon sëñ bi ñaanoon na dëkk bi mu doon dëkkub xam-xam mu am ñaari bayit yum ñaan yoo xam ne ñaan na ci juróom-benn wala juróom-ñaari mbir yoo xam ne yépp ci xam-xam la jëm muy wajalhu daban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi ne ko maa ngi lay ñaan kat nga def dëkk bi muy dëkk bu ñuy xamloo di dëkk bu ñuy xalaate suñu borom subhaanahu wa taala ak di fi balloo rek ak dëkk boo xam ne dañ fiy gàggante ko waaye bi mu ko ñaanee ñett yooyu ci bayru njëkk wi ci suuf da koo ñaan ñu mën a taxawee loolu maanaam ci kaw maskana taallum la koy wax mooy foo xam ne dañu fay jànge ci suuf mu ne ko maskanal irshaadi wa taalimi foo xam ne dañu fay jàngale mooy ñu jàng nañ fi ne ñu mën a jàngalee nañ fi ne maskanal fikr mawdi al foo xam ne dañ fay xalaate ci suuf mu ne ko maskanal taswibi foo xam ne ku xalaat xalaat bu juyut ñu mën laa jubanti ci kaw mu ne ko wa tafahumi foo xam ne dañu fay gàggantikoo ci suuf mu ne ko wa tafhimi foo xam ne dañu fay gàggantee mooy kon suñ bi ñaan na jamono ju ne ñuy sàkku xam-xam ne fi waaye ñu mën na taxawee xam-xam boobu ne ci dëkk bi te alhamdulilah rabbil alamin daara yi ëpp ci dëkk bi tey eh, ñi fi ëpp ñu koy taxawee eh, waa dëkk bi la ji ci gën a jege rek mooy daarul maarif gi ne ci jumaa ji nga xam ne ñi dëkk ëpp ci dëkk bi lañ jàngee ku fa jàngee wu tam jàngee nga ci ku fa jàngee ki koy taxawee di sëriñ alxaaji Mbàkke jaxate ñu ko ñaan mu yàgg ci loolu tuwér ci waa dëkk bi rek la bokk ak yu dul yooyu donte tekkiwul ne waa Tuubaa ñu fa war a jàngale waaye ñaan na ko mu doon kon dëkku xam-xam adduna ko an tajalahu daara tuqa wala ilmi wa diini wa daara lirtiqa tey jii xam ngeen euh, lii suñ borom def na ci xéwal lool ndax njaboot gi ñu ngi ci góorgóorlu bi ñu mujjee natt ci daara yi nekk ci alxuraan daara alxuraan yi nekk ci biir Touba laa bëgg a wax ci atum 2023 bi ñu génn matoon na 1996 ci ay maanaam daanaka ñaari junni daara yu manqué tuuti yoo xam ne benn daara yi gouvernement amu ci daara yi benn ñaar la cay doon kon daara yi ñu jóg rek ngir ngir ngir seen góor yu bopp la te li fi nekk ci ay école ëpp na ñaar di dem di wéy kon loolu lu kon loolu it lu mat a bàyyi xel la lu mat a kañ la ndax dëgg la sëñ bi bëggoon na ko waaye ay jéego mu ngi ci am bu baax a baax ba bi ci mujj am rek daara ji sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha ubbi ci mujj am bi xam ngeen daara alxuraan jafa nekk rek daanaka la muy la fa ne ciy gone jege na jege na ñaari junni gone Euh, jege na ñaari junni gone yàpp naa ne te euh, lu manqué tuuti xëy na te it euh, daara joo xam ne amul dara amul inscription amul fay weer amul dara maanaam doo def lu indi sa doom mu ñu jàngal ko jàngal ko yar ko ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak weer ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñi ngi góorgóorlu ci bëggu sëriñ bi ci anam googu xam-xam boobu nag bu ko siñ bi di wax li ci bëgg mooy ñu mën koo jëfe jëfe googu nag mooy tomb bi ci topp kon mooy xeetu jaamu yàlla li ko sëñ bi ñaan ci biir xasida gi xam ngeen du ko li ci ëpp lu mu koy woowee sax dana ko woowee al amalu bil maalum dana ko woowee lishiraalu bil furudi wa sunan dana ko woowee liqtifaa sunan euh, yooyu koy woowee ci biir xasida gi moo tax gis nga bi mu ñëwee moom rek dafa sant suñu borom alhamdulilahi alhamdulilahi alkarimi zil minan ala shiraali bi furudin wa sunan shakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi sant naa suñu borom kat moom mooy borom xéewali bi ma xéewalee ba ma sama yitte yëpp di rek jaamu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom moo mat ba indi ma ci barab bi nga xam ne nag dàqaleel ma ci mboolem lu ma daan gàllankoor mu ñaan suñu borom nag ne ko dëkk bi nanga ko def muy dëkkub ragal yàlla nanga ko def muy dëkkub diine nanga ko def muy dëkk boo xam ne dañ fi yëkkatikoo jëm ci yow subhaanahu wa taala adduka an tajaalahu daara tuqa wala ilmi wa diini wa daara lirtiqa mu amit juróom-ñaari mbir wala ñaari juróom-ñaari mbir maanaam ñaari mbir ba bi juróom-ñaar laa bëgg a wax maanaam juróom-ñaari bayit yoo xam ne bayit wu ne da ci ñaan ñaari mbir yu bokkut li may wax di leerut juróom-ñaari bayit yoo xam ne bayit wu ne sëñ bi ñaari mbir yu bokkut la ci ñaan day ñaan lii ñaan lale ba muy juróom-ñaari bayit yu tagaloo yépp ci dëkk bi mu tàmbalee ko ci wa junnatan li saalikin muridi wa junnatan an haatikin maridi maa ngi lay ñaan dëkk bi na ko def muy ndimbal ci képp ku soobu képp ku soobu bépp murid bu soobu ci ci sa yoon wi ja Tuubaa na doon dimbal ci moom foo xam ne dafay mën a jaamoo yàlla wa junnatan an haatikin maridi waaye na doon pakk boo xam ne it dañ ciy dàqee képp koo xam ne nit ku dëng la ba ab safaana ko tax a nga gis ne foofu maa xaraf jar bi rek la la sëñ bi soppi junnatan li ak junnatan an kii bi rek lay soppi ne ko wa manfaan li kulli haadin muslimi wa madfaan an kulli an kulli aadin mujrimi na doon njariñ ci képp bépp jullit buy sàkkoo jub waaye na doon luy fekk bépp kàccoor boo xam ne ab safaana ko tax a jóg nga gis ne foofu man faan li ak mad faan li wa xujjatan li man bi dox fin irtada wa xujjatan ala muxaalifin ala muxaalifin gada na doon xujja xujja li ak xujja ala na doon xujja li maanaam képp koo xam ne ak néew doole jàpp na ko ci wàllu jaamu yàlla na Tuubaa doon dimbal ci moom ba bu fi ñëwee moom mën a def jaamu yàlla ni mu ko bëggee waaye na doon nag pakk boo xam ne wala lay woo xam ne lay woo xam ne bu ëllëgee képp ku dëngaloon bu ñu ko laajee mu ne amutoon fu mu dem ñu ne ko Tuubaa ngi woon nii nga gis ne day wax xujjatan li wa xujjatan ala wa matlaban li taati rahimi wa mahraban min taati rajimi na doon fu ñuy sàkkoo foo xam ne képp ku bëgg a topp yàlla Tuubaa euh, bu fa ñëwee mën koo topp waaye na doon barab boo xam ne képp ku bëgg a daw seytaane bu fa ñëwee mën a mucc wa maskanan li subul ittibaa'i wa matrakan li subul ibtidaa'i na doon yoon euh, sóobukaay ci képp ku bëgg a topp yàlla waaye na doon it ab bàyyiwaay ci képp ku bëgg a wattandiku lépp luy bidaa ba boo ñëwee tubaa jëfe bidaa sax du la yomb nga xam ne dana maskanan li subul ittibaa matrakan li subul ibtidaa ñaari mbir yi dañuy wutee ay safaan dañuy safaano lay doon wa maskanan li bi kulli xayri wa maskanan li dafai kulli dayri na doon barab boo xam ne kat dañ ciy ñoddee wépp yiw barab boo xam ne dañ ciy dàq bépp safaan wa sababan li fatxi xayril bi wa sababan li dafi dayril bi na doon rek foo xam ne sabab lay doon ci ñoddi wépp xéewal yu ñuy séntu yu ñëwagut waaye doon boo xam ne dañ ci dàq bépp lor boo xam ne day aybal pas-pasu jullit bi nga gis ne kon fii am na juróom fukki mbir ak ñeent yu fi sëñ bi ñaan yoo xam ne ci anam gu yéeme la ko ñaanee bayit wu ne da ciy jël ñaari mbir yu bokkut euh, ñaan ko ñaan ko lii ñaan ko lële di jël ci fu jar yi ndax xam nga ne ci arab xarfu jar yi day soppi waxin yi maam da nga naan raxiba fii mu firi bëgg na nga ne raxiba an mu firi bañ na gis nga ni muy solee ci benn araf rek ngay dugal moo tax sëñ bi nag fii moom xarañe na ko lool donte lépp la xarañee sax nag lépp lu baax da ko xarañe moom euh, ñaan na ko tamit dëkk bi suñ borom def ko muy dëkk boo xam ne dañuy dañ fii taxawal julli juróom saa su ne wal si fiihi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa da'ban yaa xakiim na nga fi taxawal mbooloo moo xam ne dañuy taxawal julli juróom ba faw nag euh, yaa xakim yow mi nga xam ne yaay aji xereñ ji loolu xam ngeen ne ku fi jamono corona bi fekkoon rek xam ngeen ne lii moom suñ borom nangu na ñaan gi tolloon nañ jamono joo xam ne ci Sénégal kenn ñi wutu dem ci jenn jàkk te jumaa ji moom mooy jumaa joo xam ne mës a tëj benn yoon ba ci àjjuma mësuñu ko tëj loolu di wane ne kon ñaan gi suñu ñaanoon fii suñ borom defal na ko ci baax te it lii mu ñaanoon ci mbooloo mu fi taxawal julli juróom lii mu ñaanoon ci mbooloo mu fi taxaw julli juróomit it loolu suñu borom defal na ko ci feex ndax ban ba bi ma ciy mujjee xam dara ci jamonoy mois de février li nekkoon ci Touba ci ay jumaa man na téeméeri juróom-benn fukk ci biir dëkk bi ci ay yoo xam ne yu ñu jullee ajjuma la bokkut ak jàkkay fonk na jaamu yàlla jooyu waaye gis nga sunna it niñ ci taxawaatee wax ko ne ko euh, ne ko ci fukki yoon yi fukki barab yi bokkut di ko ñaan na doon barab boo xam ne dañ fi jëfee sunna wahab lana axza allazi aataana wa tarkama an fiilihi nahaana xata yakuna kulluna fi lxarakat muqtadiyan bi sunnatin wa sakanaat maa ngi lay ñaan kat suñu borom nga defal ñu dëkk bi nang ñu dimbale ba mbooleem li nga xam ne yonent bi sallam na ko ñu sax ci mbooleem lu mu tere ñu wattandiku ko sori ko te sax ci di roy sunna ci biir ak ci biti gis ngeen loolu lim ci ñaan bari nga xam ne min ka aru mi man abaw li xayrika rukuna wa an utiaka bi nahjil mustafa sunnatihi bayda ay yaa man istafa ñaan ko ne ko Tuubaa yi na ko defal muy dëkk boo xam ne dañ fiy jëfee sunna dëkk boo xam ne dëkkub sunna lay doon wajal binaaya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi wajalhu daban maskana tibaai li sunnatin la maskana ibtidaai na doon dëkk boo xam ne dañuy fonk sunna dañuy jëfee sunna di roy yonent bi saa te lépp lu jëm ci bidaa ñu sore ko seen kem kàttan loolu kon képp ku dëkk ci dëkk biit loolu war nga koo bàyyi xel xam ne sëñ bi li mu bëgg dëkk bi mel ko mooy mu doon dëkkub diine dëkk boo xam ne dañuy topp diine seen kem kattan wa daara ixlaasin wa sixin wa wara wa daara sunnatin wa man jan min bidaa ba képp ku bëgg a mucc ci ay bidaa sax bu ñëwee Tuubaa mucc ci ndax du ko fi gis waaye bi mu xamee ne loolu ngir mu amit faw mu am mbooloo moo xam ne dañuy taxaw nit ñi ci di leen jàngal di leen yee di leen di jàpp seeni loxo ci la ko ñaanee ne ko na ko fi defal kuréel yoo xam ne ñoom li ñuy wax al amru bil maaruf ak annahyu anil munkar ñoo koy taxawee wal tudxilil musliha fi yadi wa fii daari wa sabbitanhu bil haadil wa fii na nga ma na nga ma wutal ay defarkat ci ñu ñu bokk ci sama waa kër te ne ci sama waa kër ne ci sama dëkk bi te nag na nga leen fi saxal bu ñu ñëwee maa ngi la koy ñaan nag ci barke bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy ku jub ki mooy ko maandu ki lu tax mu tànn ñaari tur yooyu nag képp ku yëngu ci loolu war nga cee bàyyi xel lu tax yonent bi sam bi mu koy melal mu melal ko ci ñaar yooyu mooy maandu ak njub mooy taxawaayu jubal boobu noonu képp ku ko bëgg ci dëkk bi ñaar yooyu mënta ñàkk ci yow mooy maandu ak njub jàpp naa ne bayit wi sax daayira bi Moukhaddamatoul Khidma moom lañu def ñoom muy seen bàkk euh, muy lu am solo loo xam ne daayira bi suñ mbokki Baay Faal yi taxawaay yi ñu taxaw yooyu yëpp ci lii la dugg sëriñ bi moo ñaanoon ci dëkk bi suñ borom defal ko fi ñoo xam ne ñooy taxawu njaboot gi ci di leen fàttali di leen fàttali li nga xam ne moo taxoon sëñ bi ci dëkk bi muy jëf joo xam ne képp ku ci ne murit yëpp nga ci nekkal kon murid yëpp ñoo la ameel cant ñoo la ameel ngërëm jaamu yàlla yi yëpp nag li ci sëriñ bi bëgg mooy mu jural ñu ay jikko yu rafet jikko yooyu sëñ bi tudd na ko juróom-ñaari ñaar fukki yoon yu bokkut ci biir xasida gi ma njëkkanteeg waxtu wi tuuti rek tudd na ko juróom-ñaar fukki astaxfirullah juróom-ñaar fukki yoon waaw yu bokkut ci biir ci biir xasida gi ndax xam ne jikko yooyu mooy meññeet mi nga xam ne mooy juddoo ci jaamu yàlla xam ngeen bu ngeen xoolee jaamu yàlla yépp wala ponk yi lislaam yi gën a mag suñ borom bu mu ci tudd rek jikko la ciy teg bu ngeen xoolee ci julli inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar bu dee koor ñu ne laallakum tattaquun azaka ñu ne xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha aj lu demee ni ki noonu wala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaj xeeti jaamu yàlla yooyu yépp suñ borom bu mu ci tudd rek lam cay teg ci mujj ga mooy li muy jural jullit bi mooy mu defar jikkoom mooy mu defar jikkoom innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yonent bi dane dañ maa fay indi rek ngir ma mottali jikko yu rafet yi nga xam ne ku fi mas a jaar ci loolu nga doon woote moo tax sëriñ bi di ñaan suñu borom dëkk bi ne ko nanga ko def muy dëkk boo xam ne dëkkum jéggal la dëkkum njub dëkkub xam yàlla dëkkub làq ngërëmul suñu borom subhaanahu wa taala loolu nag te nga def ko muy dëkkub na dëkk boo xam ne dañ ci muccee ci mbooleem bidaay loolu nag munta am lu dul ñi fi nekk jikko woo jikko yii mooy wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara mooy nañ ñi fi nekk nañ doon ay nit ñu sellal nit ñu dëggu nit ñoo xam ne ñu ragal yàlla la doon ñu jub la ñuy doon waaye it xam gim xam ne am na ay jikko yu baaxul yoo xam ne xeet wu mu dugg jaxase ko yàq ko ci la ñaan suñu borom ne ko lépp luy jikko yu baaxul na nga ma ko dàqal ci dëkk bi wala tax mi daari anil fujuuri wal fisqi wal baatili fit duhuri maa ngi lay ñaan sama dëkk bi kat nga musal ma ci mboolem lu di lépp lu ji ak ak kàccoor bu mu fi am lépp loo xam ne ak ñàkk a njub wala muy ay neen ci jamono yépp wala wa najjinaa bi jaahihi min daawa wal takfi anna kaziban wal ahwa wal takfina al hawa wa ma yaani bika wa bika daban agnina aghnina yaa mughni aghnina yaa mughni wa bika daban aghnina yaa mughni ne ko kat maa ngi lay ñaan ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu jëm ci ñàkk a dëggu lépp lu jëm ci wax naka sud noonu wala ak neen na ma ci musal te euh, fegal ñu ko ñaan ko dëkk bi kon muy dëkkum jub muy wajal binaa ya binaa al ihtida wala takfi an nii kayda kulla zi i'tida na doon dëkkum jub dëkk boo xam ne it képp ku ab safaan tax a jóg képp ku ab tooñkat da nga ne koy dàqal ba bu mu fi agsi ne ko rek lépp loo xam ne du jub rek saa bu nee toq ci dëkk bi rek nanga ma ko dàqal mu dem wala tasrifan jumlata ma yufsidu an yadi wa an daari sarian xaysu an saa bu ne toq ci dëkk bi rek maa ngi lay ñaan nga faxasal ma ko mu daal di génn ci saa si ba ci soxna yi sax sëriñ bi fàttewu leen ci biir matlabul ni mooy taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci biir dëkk bi muy wa zawjatan saalihatan tuinu ala tuqa wal birri yaa muinu mooy soxna yoo xam ne soxna yu baax la ñu doon yu jub yoo xam ne dañuy dimbalee ci ñaar yi ci ragal yàlla ak njub ne ko yaa muinu yow mi nga xam ne yaay yaay dimbalekat bi yow suñu borom subhanahu wa taala bayit woowu it sëñ bi junj na ci soxna yi taxawaay bi ñu war a am ci tasaare ak mbaax ak tasaare ay jikko yu rafet ci biir askan wi loolu nag mënuñu ko am lu dul ñu nekk saaliha maanaam salaax am ci ñoom ndax wa zawjatan saalihatan te loolu nag ku wax loolu wax ne jàngal jigéen ñi waajur yi kon war nañu ci taxaw baax mooy rek wala nisaa yi nasibun min at-ta'allumi jigéen ñi it walas na leen a jàngal ngir ñu xam te loolu it sëriñ bi moom jëmbaloon na ko bi mu nekkee fii ci barab bi ndax xam ngeen soxna Aminata Lo di waajuru Cheikh Mouhamadul Moustapha wax nañ ne bi mu fiy jógee sëñ bi nee na benn dars benn dars moo ko dese woon ci risaala ngir mu jeexal ko te sëñ bee ko doon jàngal boppam nga xam ne kon taxawaay boobu it jigéen ñi ne ci dëkk bi seenum njàng waajur yi war nañ cee def seen kem kàttan ngir ñu mën a taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy séentu ci ñoom kon yooyu ay yu ma doon joxe la ci ay misaal ci jikko yi nga xam ne sëriñ bi ñaan na ko euh, ci sëñ bi ci suñ borom defal ko ko ci biir dëkk bi waaye nag ni mu ñaanalee dëkk bi noonu la ñaanalee ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi te tomb boobu rek moom laa ci tëjee ci waxtaan wi incha allahu taala kon ñi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ci ñetti anam yu bokkut jikko yi mu bëgg ci ñoom dëkkandoo yi nga xam ne ñoom la fi bëgg ak ñaan yi nga xam ne moom la leen ñaanal bu ngeen xoolee ci biir xasida gi ci njëlbeen gi sëñ bi ju ñu def loo xam ne bëgg na képp ku bokk ci moom nga fexe ba lii sa ndono liñ la xamee nga di ko sàmm sa kàttan gis ngeen ci njëlbeen gi muy wax suñu borom di wàcce boppam fa juttali fa juttalil yowma bi xayri minani waquttani ila iqtifaa'i sunani min baadi ma kaadam tidaaxu nnaasi yudxiluni fi shalaki lxannaasi wa kitulil amdaaxi wal itraayi azhadu fi taalifi wal iqraayi wa fi taalumi wa fi fi taalumi wa fi wa fi taalumi wa fi taalimi wa fi shigaali bi hudal maalumi wala wa fi bi hudal maalumi ne ko kat euh, yaa ngi ma womat indi ma ci dëkk bi muy xéwal yi gën a mag nga jox ma xéewal yi wammat ma fi ba ma man fee jaamu suñu borom euh, roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar ci ci bi nga xamee ne tuuti rek tuuti rek ma waat ma jàdd ndax tagg yu bari yema nit ñi doon tagg taxoon na ba mujj gi tuuti rek sax wàllu jàng ak jàngale ma xaw koo ma xaw koo néewal tuuti ne ko euh, bi nga ma dimbalee ba indi ma fii nag ci laa ci laa ci laa bàyyiwaat xel lool kon maa ngi la ci sant bu baax nga xam ne kon junj na ci ne xéewal yi lu mu bari bari ci dëkk bi waruñu ko fàtte waruñoo fàtte li nga xam ne moo ñu fi indiwoon bañu fi te mooy la ba muy sañ ba muy sañ ci dëkk bi mooy li aabudaka fihima mooy dama fee ñëw ngir jaamu si suñu borom subhanahu wa taala xéewal yi mu doon ñaan ci ay wërsëg ci ay xéewal yi ma tudd léegi yépp dafa bëggoon nag mu nekk matiya mu nekk waruwaay rek bu nit ki di jaar ngir jëm ëllëg ci suñu borom subhanahu wa taala moo tax saa buy ñaan xéewal yi ci biir da ngay gis da koy lëkkale ak ëllëg wajaalhu rabbi minanan muajjala wajaalhu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala nanga ma ko defal muy xéewal yu teew yoo xam ne day day dañuy yóbbu ci yeneen xéewal yu ko gën a mag yu ëllëg moo tax wax nañ ne Cheikh Ibra Fall junjoon na lu mel noonu wane ne kat euh, ne ah, doom bu ñu demee ba ca kanam ndaw ñi danañ doxe sañ-sañ yoon wi te duñ jëf-jëf yoon wi danañ doxee sañ-sañ yoon wi danañ wéyee sañ-sañ yoon wi te duñ jëf-jëf yoon wi ne ginaar gi nag dina mës a yëlbu ne te buy yëlbu ci digg mbànding lay yëlboo ne te bu boobaa cuuj bu cuuj bu rot ceeli këf la cuuj bu rot ceeli këf la loolu nag xawma jan jamono la waaye soriwul jamono ji ñu nekk moom am na yooyu dégg ci njaboot yi yoo xam ne ñi nga xam ne da seeni maam dañoo jaayoon lu ñu am ngir défendre yoon ñoo ñu tey ñooy def yoo xam ne mën naa tas yoon bu doon luy tas moo tax xawma kañ la ceeli yi wadd moom waaye kañ la cuuj yi wadd waaye xam naa ne moom soreetuñ ko ndem tàmbaliwut am yàlla ñu yàlla suturaal bañ bañ cee bokk rek waaye bokk na ci kon lim leen ñaan li muy ñaanal waa li muy jikko yi mu bëgg waa dëkk bi am ko mooy ñu fexe ba sàmm seen ndono fexe ba li nga xam ne moom la leen xamee ñu fexe ba duñ soppeeku waaye it ñu am yërmande ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñuy dundal moo xam jullit lañ moo xam ay yeefar lañ sëñ baa ngi koy ñaan ci xasida gi waxi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kaafiran bi zaynaba samay lor maa ngi lay ñaan nga musal ci samay jegeñaaleeg ñi nga xam ne bokkuma ak ñoom dara ñi nga xam ne ay jullit lañ ak ñi nga xam ne sax lu ñu ay jullit na nga leen musal ci samay lor ba bu ñu loroo ci man wal tak fi ni aza jami al alamin wal tak fihim azaya yaa rabbi amin na nga ma musal ci lor yi mbindeef yépp te ñoom ñépp it na nga ma na leen musal ci samay lor ki nga xam ne moo dëkk ci dëkk bi loolu la sëriñ bi bëgg mu def ko mooy moom nay fexe ba jamono ju ne nay xool lu mu jëriñ nit ñi waaye bu mu xool dara luy jóge ci nit ñi jamono ju ne nay fexe ba bu kenn loroo ci moom fi mu loolu ñi dëkk Tuubaa bu ñu amee gisin woowu am taxawaay boobu am doxin boobu waxuma Touba waaye yeneen dëkk yi sax dañuy man di roy ci Touba ci seen doxalin ak ci seen jëflante waaye jëflante bu rafet ci koo xam ne sëñ bi junj na loolu ci xasida gi képp koo xam ne bokk leen jubluwaay wala réeroo ngeen nga rafetal seen sa jëflante sa diggante ak moom wa kullu man chatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa stislaama fa kullu man asaa zannahu biya fali yaqallib qalbahu ya képp koo xam ne daf ma ŋàññ wala mu wax ma wax ju nga may ko nga def ci xolam mu tuub euh, te dellu ginnaaw rek tege ci yoon bi jaar képp koo xam ne it ñaaw na njort ci man maa ngi lay ñaan nga gindi ko nga gindi ko te te euh, yéwé na lépp rek fi mu ne loolu it gisin wu xóot la ci ataamal ma al muxaalif maanaam ki nga xam ne da bokk da ngeen a bokkut gisin nga àgg ci di ko ñaanal suñu borom gindi ko te mënoon na koo ñaan leneen mënoon naa ñaan yàlla ab safaan wala yooyu waaye moom waxoon na ne laa yad'u ala zalimin te loolu ca la nekk te mosu ca jóg kon ki ne ci dëkk bi it jëflanteeg ki nga xam ne bokkuñu gisin lu mu war a bàyyi xel la waaye yittewoo julli juróom yi wala tusbitan fiihi jamaatan tuqim asalawaati alxamsa daban yaa xakim ku nekk Tuuba fonk julli juróom yi it ñu xam ne jumaa yi li muy bari bari ngir ñu di ci jullee moom lañ ko moom moom moo tax ñu def ko fi waaye ñu doon ay nit ñu tabee ñoo xam ne alal du leen du leen fëkk alal du tax ñu fàtte si li leen tax a wajal yamini ka saxaabin fii saxaa maymunatin fii shiddatin wa fii raxa sëñ bi yi muy wax ne moom la mel dafa bëgg ñu roy ci moom moo tax mu koy wax ne ko kat na nga def ma doon koo xam ne damay tabe ba raw sax euh, aw niir ak lépp ci jamono ju ne waaye ni ma ko waxee woon sànq junj ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu commerce ñu góorgóorlu seen kem kàttan ci lépp lu ñu def mu dëppook mu dëppoog njàngale lislaam yi wa risqaha jaal artebal xalaali fi l usri wal mooy lépp loo xam ne jëflante bu jëm ci wàllu riba la wala bu tegewul ci li lislaam daganal ñi nga xam ne ñoo fi yëngu di fi yaxantu it war nañ cee góorgóorlu seen kenn kàttan ci di ko wattante ko xam ne maanaam quwa iqtisaadiya euh, maanaam économie bi nekk Touba wërta doon rek jumtuwaay boo xam ne mbirum àdduna rek ci lañ ko yemale waaye ki nekk commerçant bi nekk war naa wute lool ak commerçant bi ne feneen ndax moom fii mu ne lu mu góorgóor lu mu néew néew rek maanaam ñi fi yëngu ñëpp xam nañ ne barkeb sëñ bi moom fekk si na leen ci li ñu yëngu loolu nag ni ko mën a delloo njukkal rek mooy ñu fexe ba tënku ci diine ndax loolu dong moo ko taxoon a bàyyi mbàkke bawal gi nga xam ne xajoon na fa te ay mbokk ma fa nekkoon waaye li ko taxoon a ñëw fii mooy fu mu mën a rawalee pas-pasam fu mu mën a rawalee pas-pasu ñu àndoon ak moom fu mu a daw nit ñi ak li ci loxoy nit ñi waaye ñaan suñu borom it mu indil ko ay ay ay dëkkandoo yoo xam ne dëkkandoo yu jub la ñu doon waliyesu xayra xalaalin tayibi wa xayra jiraanin bi xaqi tayibi ne ko nag képp koo xam ne junj ko ñoo xam ne bëggul ñu nekk ci dëkk bi moom ñii moom sëñ bi dafa dafa junj ne bëggul ñu nekk ci dëkk bi wal takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhaka fasrifu sarian is yarid képp koo xam ne taxoo koo jóg sàkku sa ngërëm taxu koo jóg saa bu ne toq ci dëkk bi dàqal ma ko mu jóge fi xam ngeen lii sëñ bi wax na ko nii ci matlabul fawzayni waaye junjoon na ko junjoon na ko ci ca xissa boobu sëñ Basiru nettali ne am na bis mu woo ku ñuy wax sëñ Abdoulahi Jaw ne ko demal Daaru Salaam boo demee ña fa ne nee leen képp koo xam ne yàlla dong ko képp koo xam ne àdduna ko taxoon a jóg na dem képp koo xam ne àllaaxiraa ko taxoon a jóg maanaam képp koo xam ne àdduna kese taxoon mu topp ma mën naa dem yeewi naa ko képp koo xam ne àllaaxira kese taxoon mu topp ma mën naa dem yeewi naa ko képp koo xam ne àdduna ak àllaaxira ñoo taxoon mu topp ma na dem yeewi naa ko képp koo xam ne yàlla doo nga tax nag mën naa moo tax fii mu ñaan ko ne ko képp koo xam ne sa jëmm képp tax koo jóg maa ngi lay ñaan nga daqal ma ko boobu mu ñëw fii ci dëkk bi wala takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhaka fasirfu sarian is yarid wax ko ne ko it képp kuy ab lépp képp kuy ab yàqkat na ko na ko dàqal ci dëkk bi képp kuy ab defarkat na ko saxal ci dëkk bi wala tasrifan jumlata ma yufsidu an yadi wa an daari sarian xaysu an wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabitanhu bilhaadiloo fi nga xam ne ki ci kaw wal tasrifan la koy wax kii mu ne ko wal tudxil kii mu ne ko xaysu an maanaam kii na ko fi saxal kii moom na ko daal dàq ci saa si mu dem ñaanal na it waa tubaa ay ñaan yu bari xam ngeen sëñ bi ñaan na ci biir xasida gi ne ko ne suñu borom képp ku dëkk ci dëkk bi maa ngi la ñaan bu ko topp bàkkaar nga jégal ko ay bàkkaaram waxfir li kulli man biha qad sakana wa lillazi laha li xayrin rakina képp koo xam ne dafa dëkk wala mu ñëw fa ngir aw yiw maa ngi lay ñaan nga jéggal ko ay bàkkaaram ñaan ko yi ne ko maa ngi mbooleem ku ne ci dëkk bi maa ngi lay ñaan nga musal ñu najji nii rabbi ah-, wa ahla daari huna wa fii gadi min al akdaari àdduna ak àllaaxira maa ngi lay ñaan nga musal ñu ba ñu mucc maag waa dëkk bi yépp yaa man ala an zawjatin wa an walad xot ni wa xot jamia ahli ahli zalbalat yooyu yi ci sëñ bi wax bari na lool xot ni an cheytaani yaa jalilu wa maskani wa kullama aulu mujj sax yim jël dénk ko suñu borom subhanahu wa taala mu boole ci dëkk bi ak waa dëkk bi nafsi wa diini summa ahli wal walad wa maskani laka wadiatun abad yim jël na ko suñu borom dénk naa la ko ba faw abat ba faw maanaam abat mën naa firi abadan ba faw mën naa firit xëy na duniyaa muy daal gi baa gi muy bal sax alif gi muy muy muy muy alaxira xëy na abat sax loolu rek lay lay mën a bu dul loolu tamit waaye wax ko ne ko daal yooyu yëpp dénk naa la ko teg naa ko sa loxo yow suñu borom loolu booleel na ko ci dëkk bi booleel na ko ci waa dëkk bi xam ne it ñi fi dëkk faaw ay rëcc rëcc du leen mën a ñàkk tax mu ñaan suñu borom ne ko maa ngi lay ñaan saa bu ñu defee naka sudul noonu it nanga ñu ko bu leen ko topp wala tuaxisna bi suuil adabi wa bi tajarrui wa kusri laabi fa innana wa in tajarrana fala narju siwaaka kun lana tafaddula xis naa bi kasratil fudul fi zahirin wa batinin wa bil ghuful képp ko saa boo xamee ne kat def nañ naka sudul noonu wala ñu mel ne ko xotti rëdd yi nga xam ne jéggi yi nga xam ne rëdd nga ko it xamal ne ak ndoomu aadama rek moo jàpp waa dëkk bi waaye euh, amuñ kenn ku ñu yaakaar ku dul yow kon yow yàlla na nga jëflante ñoom ci sa yërmande yàlla na nga jëflante ñoom ci sa mbaax te ba leen a topp ci li nga xam ne muy la mu ko waxoon ca euh, matlabu sifaay euh, ci ne ko rek wala humu habil lazi laa yanfauk maanaam yërmande googu ñoom buñ ci jotut seen dara lu baax te yow boo leen ko joxee yow du la wàññi dara ñaan ko ne ko it képp ku koy liggéeyal ci dëkk bi wala mu ko fi ziyaare si ñaan na suñu borom musal ko jéggal ko wa kullu man xadama ni aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara ñaan ko it mboolem yi ñuy taxawal ci dëkk bi képp ku ci góor góorlu na ko na ko na ko jéggal ay bàkkaaram képp ku ci jàpp yaa laafi al aswaa'i wal akdaari bil mustafa fan kullu suu an daari waxfir waxfir li man banaw binaaha rafi waxfir li man amarahum bihi jamia wali jamia man aanahum ala binaa allazi bi fadlika ta'ala nga xam ne jumaa ji feeñ na ci waaye ñaan guy wéy la ñaan guy wéy la ndax ma ngi ko déparé woon ca kër gañ doon tabax jumaa ji feeñ na ci waaye lu wéy la bépp projet bu ñu yëkkati ci dëkk bi rek ku ci jàpp rek dugg nga ci biir ñaan googu waaye it ñaan na suñu borom subhanahu wa taala mu defal ko mu mu mu musal mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci moom ak mboolem jullit ñëpp rek ak fépp fu ñu ne wasrif azaba nnaari an jumlati man bi yataallaqu min abnai zaman wa jumlati l ixwaani min aqaaribi fi tiini aw fi diini wal bi maa ngi lay ñaan nga musal ci sawara mboolem ñi nga xam ne dañoo aju ci man ak jamono ju ñu mën a nekk mboolem ñi nga xam ne ñooy suñuy mbokki jullit moo xam suñuy jegeñaale lañ ci wàllu deret wala bokkuñu ci wàllu deret sax wala suñu mbokk sore na ñoom ñëpp maa ngi lay ñaan ak fu ñu mën a ne nga musal leen ci sawara kon yooyu yëpp nag mooy li nga xam ne kilifa yi moom lañu xam ba seen kem kàttan ñu taxaw ci doon sàmm war mooy dëkk bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen daaw ci tabaski gi am na waxtaan wu am solo mu def ci di ci junju waa dëkk bi taxawaay bi ñu war a am ci biir dëkk bi jund ci ñetti mbir bu njëkk bi mooy ñaari mbir yoo xam ne yu ñu war a bàyyi xel la ci képp ku dëkk ci dëkk bi te mooy sàmm suñu diine ak sàmm suñu taalibe ñaari la wax sàmm suñu diine ak sàmm suñu taalibe ndax yooyu mooy base bi maa diine ji moo ñu dugal ci lislaam taalibe gi moo ñu boole sëriñ bi kon loolu lépp lu mu laaj ci jikko ak melokaan ñu sàmm ko ne ñaareel bi mooy ñaari warteef yoo xam ne képp ku dëkk ci dëkk bi war na ko bàyyi xel te mooy sàmm war mooy sëriñ bi ak sàmm war mooy dëkk bi ne ñetteel bi nag mooy ñaari xéewal wala ñaari tawféex yoo xam ne ñu dëkk ci dëkk bi am nañ ko te mooy tawféexi aju ci sëriñ bi ak tawféexi dëkk ak sëriñ bi te xam ngeen sëñ bi dëkk ak moom rek bëri na ñoom lu mu ñaanal ci ay dëkkandoom gis ngeen bayit woowu ñu bind ci buntu kër gu mag gi rek duur yi wa maa lixtira min jiraani naajiyatun min jaalibil xusraani ne mboolem ñi nga xam ñoo ay dëkkandoom ay dëkkandoom dëgg na leen ci ci ci sawara loolu nag moo tax Cheikh Mamadou Mountakha dénk suñ bokki Baay Faal li mu leen dénk ñoom ñu di ci taxaw taxawaay bu rafet li mu leen dénkit weesuwul rek fàttali nit ñi li taxoon sëñ bi sañ ci dëkk bi loolu nag taxawaay bi ñu ci war a am ñun ñëpp rek mooy kenn ku ne ci dëkk bi nga gëm ne yow la ko sëñ bi digal yow yaa war a yaa war a yaa ko war a jot li ko koo dendal loolu bu ñu ko defee fi ne du ñu séentu sax kenn di ñëw di ñu jubbanti wala kenn di ñëw di ñu fàttali maanaam digal li kenn ku nekk rek na gëm ne moom lañ ko digal moo ko war a taxawee moo ci war a jiitu ñu xam ne digal lu lu individuel la doog a collectif maanaam lu kenn ku nekk war a def la mbooloo mi doog ko àndal def ñu xam ne daal kenn wëttanik sax ba bañ bàyyi faale ñëwoon na leen nii la waaye ku nekk da ngaa war a gëm ne digal loolu Euh, ñëpp la ko sëriñ bi digal ndax lu baax rek moo tax mu digal ñu ko te loolu ci ñëpp ñëpp ci lañu bokk kon su ma doon tëj rek sëñ Abdou Lahad mel na ne waxtu yu ñu waxoon juróom minutes su ma ko defee dina doy bi ci njëkk mooy ku képp ku bëgg xam li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi mën naa dellu ci xasida ak Matlabul Fawzayni loolu moom mooy li wér sëriñ bi li mu bëgg ci dëkk bi ni mu bëgg dëkk bi mel ko ni mu bëgg waa dëkk bi mel ko jikko yi mu bëggul ñu am ko képp ku dellu ci xasida ak Matlabul Fawzayni dina ko ci fekk ñaareel bi mooy dinañ ci gisee it ne sëñ bi li ñuy wax théorie ak pratique day jiital pratique doo ko théoriser wala sax da di boole maanaam sëñ bi wute na lool foofu ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo doon yaxal ci dëkk yi ñu bëggoon nga xam ne dañuy dañuy bind ay xalaat noonu rek waaye sëñ bi moom lii bi mu koy bind fekk na sax mu sañ ci dëkk ba noppi gis ngeen masaalikul jinaan gi nga xam ne ñu bari dañuy wax ne mooy gisunu sëñ bi ci tasawuf bi mu koy na mu woote yoon ba am ay at ñetti fekk na li suñ ma Lamine di wax nan am ci ñi mu woote loon ay majaas yëpp am ci ñu ne ñu nekk Mbàkke di def ay karaamaat ay kii yu mu doog a nekk di yaxal euh, li nga xam ne moom la gis ci ci ci ci tasawuf xoqal bu kaaw bi mu koy bind mi ngi fii ci Tuubaa fekk na mu seexal ñu dul jeex xettali ñu dul jeex loolu day walla nekkoon kon sëñ bi du kuy toog noonu di yaxal rek waaye day li muy jëf dafa gën a fës li muy wax waaye it mënees na cee jàngate ne xasida gi di bul Matlabul Fawzayni discours bi ci sëñ bi def ñaari wàllaam bu dee diggante sëriñ bi ak boroomam da ko ciy ñaan ak di ko sant waaye bu dee diggante sëriñ bi ak njaboot gi nag da leen ciy digal ay ndigal yoo xam ne dañ ko war a jël daf ko fay ngir mën a jubbanti dëkk bi ba faaw waaye it xam ngeen ne dëkk bi sëñ bi li mu koy bëgg-bëgg li mu koy fonk-fonk juróom-ñaari at rek la fi ne juróom-ñaari at rek la ne ci dëkk bi mu fi génnee duggaatu fi lu dul keroog bi muy ñibbise waaye danañ ci xamee ne buñ ko génnewutoon dëkk bi ak génn gi li ci li ci juddoo kon tey jii Sénégal dana àgg fu sore sore sore sori ci mbaax ci njub ci diine Sénégal bu fekkoon Sëñ Tuubaa génne wuñ ko Tuubaa programme bi mu tegoon mu wéy ci te dara gàllankooru ko kon heure bii moom Sénégal leneen la ñuy wax ci wàllu diine wàllu ko ndax anam bi mu ko doon defee it da ko doon déconcentré da doon décentralisé ndax xëy na Tuubaa la nekk di tarbiya waaye comme tarbiya ba gis ne mel nga ni ni mu bëgg ni mu bëgg mu roof la mboot yebal la ne la demal dellu fa nga jóge woon boo demee ba dëkk ba nga dëkkoon doo dugg ci dëkk bi da dem ba jub leen ci wet gi waaye diir bu gàtt nga fay def ñëpp fàq si ñoo fekk si la ndax li indi duñ ko mën a muñ loolu bu ñu ko defoon diggante bu gàtt dëkk bi day mujj toj moo tax gis ngeen angoo xaw ma tubaab boobu ñëwoon doon def recherche ci siñ bi bokk na ci rapport bi mu bindoon ne Ahmadou Bamba mi ñu gis daal buñ Bamba lay créé ndax day mel ni siñ bi ñëwutoon rek rek ngir defar nit ñi waaye da defar nit ñi ak leneen moo tax bi mu ne bërét mu defar ñu defar nit ñi moom mu wéy ci ab liggéeyam ndax liggéey bu mag bii mu liggéey woon sanc na tubaab ba jóge fi doo ko dem liggéey kon am na leneen lu mu doon def waaye it waxtaan wi jàng sa ci jàngate it ne tubaab yi wax dëgg wax dëgg gàllankoor nañ lool liggéeyu sëriñ bi nag lool lool lool sax li sëñ bi bëggoon moom moom tubaab bi wax dëgg gàllankoor nañ ko ci lu bare bare bare bari moo tax mujj gi xam nga ngeen daan na wax ne bokk na ci sama sama cet ñàkk a mën a toog tubaab dafa jàngale alxuraan ak dafa jàng ak dafa yare ndax xam na ni génne gi ñu ko génne moom yàq na lu bari ci gisin mu amoon ak projet bi nga xam ne moom la amoon ci yar nit ñi donte suñ borom fay nag ku ci geneen anam nag kon yooyu yëpp yu ñu war a bàyyi xel la taxawaay yooyu nag ngir ñu mën koo taxaw ñu dëkk ci dëkk bi ngir ñu mën a taxaw li lañ ci war faaw ñu bàyyi xel li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ci ay bëgg-bëgg yoo xam ne moom la wax ne moom la bëgg ci dëkk bi te mu nekk ci biir Matlabul Fawzayni waaye faaw it kenn ku nekk ci dëkk bi gëm ne maanaam ndigalul kenn la kenn bu kenn gëm ne rek waa maanaam ci misaal jumaa ji waa Moukhaddamatoul Khidma ñoo koy taxaw ñoo ko war a jubbanti waaye ku ñëw ci jumaa ji sart yi ñu fi teg rek mën nga cee jaar da nga leen dimbale ñoom ci taxawaay bi ñu war a am tey dinga tënku ci ndigal li naka noonu Baay faa yi nga xam ne ñoom lañ euh, taxawloo ci dëkk bi ak beneen kuréel boo xam ne rek am na fu ko sëriñ bi liggéeyloo kenn ku nekk ku ne ci dëkk bi daa war a gëm ne moom ndigal li ci moom la déparé waaye it nga xam ne am na fi ak doole ji nga xam ne am na ci yoon wi war nañ cee xalaat suñ kem kàttan ngir rek lépp lu mën a jëmmal dëkk bi ni ko sëriñ bi bëggee moo xam ci wàllu njàng la moo xam ci wàllu paj la moo xam ci wàllu sécurité la moo xam ci wàllu euh, yee nit ñi surtout loolu sax surtout loolu ndax tubaa ni mu demee léegi ci wàllu démographie ñii ñëw di sanc si ku ñëw day indaale jikkoom indi yaram bu ñëwee nag mm, mën naa bañ a amee jikk li ñuy woowee jikkoy waa Touba waaye dañoo war xam ne rek euh, lislaam diine jàngale la diine fàttali la kon wala ñu wala fas naa fexe jàkka yeeg kilifa yee ku ne gox bam ne mu def kem kàttanam ci di di di di yee mbooloo mi di leen fàttali li ñu fi indi woon tey ëllëg ba ñu fi te mooy sàkk sàkku ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala euh, loolu nag moom la kilifa yi xam ba Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñoom ñëpp ak kilifa yoon yëpp kenn ku nekk kem kàttanam euh, def na ci lam man euh, ñu ñaan suñu borom mu fay leen yiwu bari ba tey jii Touba doon dëkk bi nga xam ne dëkk bu lislaam di ndamoo la dëkk bu lislaam di tiitaroo la dëkk bu lislaam di di di di di di di di di di la loolu nag euh, li leen ko may rek mooy yii sëriñ bi waxoon ne moom la bëgg ñu def ci seen kem kàttan euh, am na geneen wet nag gu bokk ak gii ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi xasida gi am na jaani fikri bu ci ne mooy lii ñu doon wax ci li ci sëñ bi dëxañ ci ay xalaat ak yu demee ni ko doon waaye am na nag beneen jaanib ruuxaani wala jaanib euh, nuuraani wala irfaani bu ci nekk bu gën a xóot boo xam ne jàpp naa ne sax boobu moo taxoon mag ñi fonk dëgg ba daa ko jàng di ko jàngalu am na suñu mag ñi ñoo xam ne dañ daan a jàng bis bu set ku ko mënul mu koy jàng ay ko mënul mu koy jàng weer wu ne taxul taxul muy wax dëgg xalaat yi ci la bokk ngir nit ñi xam li ci am na meneen mbóot mu ne ci biir nag moo xam ne euh, nañ ko xool rek ñi ko ci xam xam nañ ko ko ci xamul tamit nañ ko jël durus ko te xam ne am na suñ borom nangu na ko daal ci gàttal Matlabul Fawzayni suñu borom nangu na ko ni mu nangoo lépp lu sëñ bi bind moo tax euh, yàlla nañu ko sëriñ bi suñ suñ sëriñ bi yàlla nañu ko suñ borom fayal euh, dolli ko ngërëm dolli ko feex li mu bëggoon te daan ci sonn euh, fii bi mu fi ñëw metti woon na lool ci moom mu daj fi lu ne ngir bëggoon a jëmmal diine ak lu ci lu ci aju rek yàlla na ko suñu borom defal ci loolu lu kawe njortam dolli ay mayam dolli ay darajaam dolli ay maqaamam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd di sant bu baax waa daayira Muxaddamatul Xidma di jéggalu ci kàddu yi xam naa lu ci dëng rek ci man la lu ci jubit ñoom lu jub rek lañ bëggoon ku ko wax maa ngi jéggalu bu baax fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf euh, sëriñ Mamoor Mbàkke di ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne doon nañu ko defal doon ñu jàngatal ak a faram pàcceel xasida gi nga xam ne mooy labul Matlabul Fawzayni muy niñ ko waxee woon ci tàmbali bi léegi gis ngeen ne ñi doon topp waxtaan wi ak ñi fi teew jariñu nañ ci am nañ ci lu kawe njort euh, xasiida gi kat sëriñ Mamor indi na ko noo xam ne sax kawe na ni ñu ko xalaate woon ndax jàngat na ko ci ñetti tomb ni mu ko waxee woon ci tàmbali bi ci tomb bu njëkk bi nga xam ne indi na ko ci waxtaan wi ci tàmbali bi muy tënkal nañu Touba xam nga ne Touba rek dooy na sëkk waxtaan ngir waxtaane dëkk bi rek fi ko sëriñ bi tegoon ak ni mu ko faggee woon ak ni ko sunu borom joxe woon nga xam ne dëkk la boo xam ne moom dong moo ko sanc néeg bi mu fi njëkk def sax moo ko moo ko defal boppam nga xam ne nekk na ci àll bi ab diir bu yàgg kenn xamut fu mu nekk bañ ñi ko doon wër si dañoo ñëw fekk ko fi mu nekk mu làkk fi làkkum ngeer boo xam ne moo ko defal boppam euh, bokki taalibe yi doog a dem indi bagage yi ñëw waaye mu nekk fii ab diir bu yàgg boo xam ne ñi sañoon laaj ñi ko sañoon laaj ngir xam ci moom li tax mu nekk ci diir bu yàgg bi mu nekk fii biñ ko laajee daf leen a wax jagle yi nga xam ne sunu borom defal na ko ko ci dëkk bi ak yim ko fi dikk kon nag dëkk la boo xam ne sëriñ bi ci boppam fonkoon na ko lool ba moo ko gënaloon dëkk bu nekk ginnaaw fadul fa sangam bee loolu kon mat naa bàyyi xel lool ñaareel tomb bi li taxoon a jóg waxtaan wi dëgg-dëgg muy jàngatal ñu xasida gii di ma Madabul Fawzayn ni mu ko waxee ci jeexital bi xasida gi barke mi ngi ci ay dénkaane mi ngi ci waaye ay jaaj ji mi ngi ci ak ay waaree mi ngi ci ak laabiire nit ki bëgg a dëkk Tuubaa it mu xam ni mu fi dëkke mën nañ koo tënk rek ci ñaari bayit ci nga xam ne dana yóbbaale jàngat xasida gi ak tomb bu mujj bi mu doon wax muy ñi dëkk ci dëkk bi nan lañu war a dëkke ci dëkk bi wa jannatan li dhalikin muridi wa junnatan han haatikin maridi maanaam ki nga xam ne dafa jub te bëgg lu baax te nekk fi dëkk bi moom àjjana lay doon ci moom loolu ñi fi nekke lu baax xam nañ te ñu ngi koy dund waaye ab pakk lay doon tamit ci képp koo xam ne dangaa doon marit nga xam ne dangaa fa yéene li ñu fiy tere nga di ko def loolu moom su boobaa soo teewluwut jéem a jubbantiku it moom it euh, dana am luy ñëw di la di la fexeel waaye wa man fahan li kulli haadin muslimi waaye wa madd fahan han kulli haadin mujrimi sunu mbokkum taalibe sunu magum taalibee sëriñ Cheikh Gueye oustaz sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh Awa Balla Gueye mas namaa dégg mu an bayit woowu li tax mu am solo te mat a jàngat mooy gis màggatum bandim Touba lu jafe la maanaat ñaare màggatum bandim Touba moo xam ne da nga koy xam mu judd ba ba màggate fi lu jafe la ndax bala fee àgg ci yenn at yi rek yetu mat fax wi ñëw jële ko fi tax na sëriñ bi di gàttandoo taalibe yi ngir di leen laabiire xam ne sëriñ bi lim bëgg ci dëkkam bi mooy am te lim ñaan ci barke bu fi am ñaan ko it ci xéewal ñaan ko ci kaaraange ba ku fi am xéewal sa xéewal ñoŋ ko loolu war naa tax ku fi liggéey ba am xéewal nga bañ a bew ba bañ a ñàkk a ak li fi sëriñ bi bëgg ndax dëkk bu nekk nag wala kër gu nekk la fa borom bëgg mooy la fa am te sëriñ bi li bëgg ñaan ko fi mooy loolu tax na kon dénkaane yi nga xam ne ak daale yi nga xam ne sëriñ bi def na ko ba tax mu sàkk benn kuréel ngir di leen sàmm loolu sàkk benn kuréel ngir ñuy sàmm war may Tuuba mën nañoo wax ne kon képp koo xam ne nekk nga ci dëkk bi am nga responsabilité ci liggéey ci liggéey boobu tàmbalee ko ci sa kër ak ci sa barab ak ci say gox waaye it nga warmaal sëriñ bi ngir xéewal gim la defal ci dëkk bi ak jàmm ak kaaraange gi ci nekk ak coono yi nga xam ne daj na ko ngir kon loolu war naa tax képp kuy dëkk ci dëkk bi nga bàyyi xel loolu kon sëriñ bi dafa mel ne andi nga ay jàngat yu wuute ci bayit yoo xam ne sëriñ bi def na ko surtout rawatina ni mu dénkaanee niñ fiy nekke kon mbokk yi waxtaan wu mat a déglu mat a teewlu mi ngi nii sëriñ Mamor doon ko waxtaan képp koo xam ne daal yaa ngi ci dëkk bi war ngaa bàyyi xel tomb bi ca di ko jàngat di ko déglu saa su nekk waaye nga war a fas yéene xam Matlabul Fawzayni bi mu doon jàngat di ci barkeelu di ci di ci aaru waaye nag di di di di di di jëfee li nga xam ne mooy li ci sëriñ bi dénkaane kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ñaanal sunu borom defal la tawféex ak taysiir defal la it kaaraange yokk sa xam-xam ba li nga bëgg liggéeyal sëriñ bi lépp nga def ko barakati xaadim rasul ñi ngi sant it bokk yi nga xam ne teewoon nañ fii ñoom ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal sunu borom it defal leen tawféex ni mu ko waxee léegi Euh, sagam mat la foofu sëriñ lañu doon jàngat di jàngat kaaraangeel dëkk bi sëriñ bi it am ñu mu ko dénk ñooñu it bokk na ci ñi fi teewoon ci jataay bi kon ñoom it ñu leen di sant di leen gërëm muy sunu bokk yi nga xam ne ñooy waa kër maam Cheikh su ko defee ñu ngi sant bokk yi ñu doon topp yépp it ci MKTV ak CMT waaye ñi nga xam ne dañ koy topp ci teg gi nga xam ne As-Samadiyya TV danañ koy tegaat ak timis mi nga xam ne moom it dafay teew saa su nekk waaye Lampal télévision yi di ko jàllale en tey jii bokk na ci tasukatu xibaar yi fi teew yépp ñu mel ne Gabro Production ak euh, ñu ni demee waaye site internet yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy jël waxtaan wi di ko jàllale ñoom ñëpp it ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu bokk yi fa nekk di ñu seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi niki noonu RTS national muy euh, télévi euh, rajo télévision nationale ñoom it danañuy baamu waxtaan wi ñu koy déglu fu nekk it ci biir réew mi ak ci bitim réew kon su ko defee dañu leen di fàttali tomb bi nga xam ne war nañ koo waxtaane suba muy tomb bu am solo moom it te méngoo te ñëw ci waxtoom tamit te ñëw ci waxtoom démb doon nañ waxtaanee citoyen bi wala doomu aadama bi nga xam ne dafa war a tànn njiit lan njiit la war a tànn ak lu ko ci lislaam sant suba ñu war a waxtaanee kon leetar bi nga xam ne Serigne Mbacke Bousso da koo bindoon buur bu ñuy wax Ngaladu mel ne mel ne président de la république rek bi war a falu Euh, sëñ Mbàkke Buso bindoon la ab leetar di wax di la wax njiit li ñu war a li falu nan la war a jiitee ab dëkkam ak comportement yi mu war a yor muy lisaanul xaq yatakallam euh, muy leetar boo xam ne sëñ Mbàkke Buso bindoon na ko buur bu ñuy wax ngalanu euh, di ko ci dénk ndénkaane yi njiitul réew ni mu war a mel kon ñi ñi war a fal ñoom it war nañoo teewlu waxtaanu suba wi ngir mën cee jariñu loolu na ki koy def mooy sëriñ docteur sëriñ Sam Bousso Abdourahmane incha allah subaak jàmm docteur Serigne Sam Bousso Abdourahmane moo koy def kon ñi ngi fàttali bokk yi bëgg yónnee ay laaj ngir mu jëm ci fatawa yi mën nañu ko yónnee ci whatsapp wala ñu wootee joxe laaj bi su ci 78 689 28 28 689 78 689 28 kon ñu ngi leen di dig daje subaak jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu